allí al canal que Yenage and favorite show coming your way every Sunday, 6 p.m. Gambian time from the Gambian Talent Radio. This is Lutak Gambian Rhythm Show. Nekale our microphone with the Pa Usman Duke and the Iwasara. We will do it. Let's do this. <laughs> alama ke na duka wai na kallon wai da mai feka ina da wuta ma kuna ka buga wani samaron milikin hamna su da sun siyin ni gondun yoki oxygen pa usman yokan ma mai bina ma talk to them we talk gambia to them in the sister even sad eh ni da no pa usman <laughs> gambia to them show every sunday na on gambia college radio to set up pa usman to fight even sad oh 6 p.m. na gmt Thank show. Every Sunday like you yes yes yes ñu ngi leen ay di leen welcome to dental dalal ci beneen yoon ci tax Gambia du dem show brought to you by Pa Ousmane Diouf ak Iba Sarr ni lañ ko defee saa su nekk rek fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku wala ñu ngi lay nuyu di la dalal di la tatagal di la nuyu nuyu nuyu buur teral la ni terale teralee buur leen ahlan was ahlan defoon nañ ko last week nag fekkee ko dañuy baaxantal kon Iba Sarr nuyu naa la <laughs> sant yàlla rek xanaa xaw a sonn xaw a gumantu waaye sant yàlla ndax su jënd buggee daxaar ku yegg daanu li ñuy wax mu ñor ñu neex ñu bu baax a baax a baax di ñu bégal di ñu jàngal di jàngal askan wi di fàttali askan wi yaakaar diis nag mu teg ñu fi rek da tax lépp lu jàppoon rek ñu bàyyi ko nar a toog jàkkaarloog askan wi sunu askan rawatina ñu ci yaakaar nag pour waxtaan ak ñoom yow ci loo sant borom rek comme noo ko waxee rek eh, yaram neexul tey waaye duñu def rek ñu fexe ah tey moom muy loolu tey dimanche léegi sonné laa ko dee daal yaram bi bañ na léegi na waaye comme li nga wax rek lu mënta ñàkk faaw mu an eh, comme ñun ñoo fi nekkal di voice of the oppressed ba tax na saa bu gaay oppressé rek eh, suñu kàddu daf si dee am solo rawatina lii nga xam ne mooy lu tax Gambia du dem te yaakaar naa ne tur bi yéen ñuy wax ñu ko ci kanam tuuti rek ngeen déglu ñu ñu yaatal waxtaan bi xam na di ngeen ànd ci ñun lu ñuy laajte ne lana tax Gambia du dem kon mbokk Eva, sir. You jël this other quick break rek can't be back just we back hakken dana looy dëgg waa génjoor alfa ak kitchen bu ñu làngee ba pare rek kenn dootu làng waaye daal waa génjoor alfa ak ko benn yoon ndax bëgg lu baax xam lu baax te di xalaat di def ci réew mi réewi gaax yi yéen sama gaañ waa génjoor woo ci exclusive ngoonal barbecue samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre dama ne da a a lekk yu neex yu saf sap yu sell te wóor fekk si leen ñu ndax foofu yaa nga fa ebe eh barbecue and afra snacks lekk yi daal saf na sell na wóor na te it nag day ànd ak entertainment bu saf sàpp li lekk yi di safee noonu la entertainment bi di safee bu di saf sàpp laa ko tuddee gaañ yi bés bi kañ la samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre waaye nag di leen fàttali géej yooro afra ak kitchen ñu nga jàkkaarloo a am lu leer теплым днем. jërëjëf waaye mbokk yi ñuy déglu dañu seetaan fu ci waaye nekk rek ci ñu leen di ko ñu àdduna kon ñu leen a fàttali loolu fële ca géej yoroog loolu alaaji géej ñu lay nuyu di la dalal di la tatagal ci beneen yoon rek an ñu ngi bëggee ñëpp képp ku ñuy déglu di ñu seetaan si jamono ji lu tax Gambia du dem nag lañ wax ni ko Iba Sarr waxee ñu yaatal waxtaan wi ndax waxtu ko dem last week ñu waxtaanoon lu am solo mooy lan am coow li nga xam ne mu ngi woon ci kur lu tax Gambia du dem week bu nekk Gambia am na lu tax du dem bi bu nekk Gambien ci dinañ xaasal Gambia <laughs> ma ree loolu li maa wax daf ma ñor sama bu nekk Gambien ci dinañ xaasal Gambia ba tax du dem mm. turu lan social media for the most muy li am solo ñu jégal na bu baax last week gannaaw bi nga xamee ne commencé nañ show bi dem ba ci digga bi liñ waroon a def yëpp liñ bëggoon a def yëpp mënuñ koo def because of technical issues we were having waaye yàlla def na nag dinañ continuer pour nekk feeg yéen rek pour def ak yéen li nga xam ne moom la ñoo def am am am muy li nga xam ne mooy li war last week lan lañ commencé woon coow ngi ne woon pour gannaaw bi nga xamee ne dem am ah, London dem Belgium ak yeneen place def fa waxtaan am ci affaire yi euh, euh, Gambia mu wax lu bari foofu noonu nag ba triga am euh, Gambia gi ci jamono ji ñu dugg si waxtaan ak mom binda am statement di dibong li nga xamne mom lañ wax ne mom la Halifa Sallah wax yalla def khalifa delu si war nak ci Gambia sar am mu ne won dina def press conference mu def press conference boobu am di ki demba ci samedi ji nak amin ciow li ne kursi lolu ñi d'accord ak khalifa ci lim wax ne euh, press conference bi am am li nga xam ne moom la si jot a wax am nañu d'accord ak moom am ñoo xam ne d'accord ñoo ak moom ba fi ñu jàpp rek lañ jàpp ci mooy bi mu digeer nag mais duñ bàyyi ne Khalifa dafa am time Khalifa am am am am na nekk di wax dibeer rek comme li nguur gi wax rek ne nañ dem am am am am na euh, jël responsibility moo gën mu defee coow moo gën mu toog di coow rek di xataraayu di coow rek loolu lañ wax kon boog. Euh, lii mooy li nga xam ne moom lañ doon waxtaanee last week jotuñ ko jekkali nag si Indonesia bi actually ñu jéem dugal the press secretary office of the president pour waxtaan ak moom am ci ci ci ci ci li nga xam ne euh, mooy press euh, release boobu nga xam ne defoon nañ ko authentique ndax ci ñoom la jógee ndax jógee wut ci ñoom Eva Sarr kon boog duma def dara lu ñu déglu xalifa Sallah Euh, li nga xam ne moom la jot a wax ci press release am bi euh, démba den su ko defee ñu euh, dugg ci office of the president comme ni ma ko waxee dinañ jokk Ami Bojang Sissoho nga xam ne moom mooy di press secretary office of the president pour waxtaan ak moom Halifa Sallah lim jot wax dégg nañ ko comme ni ma ko waxee moom tamit boobu moom tungu ne du teew ñuy natta Iba loolu ma baaxee la si ñun ñëpp dañ dee faral di ko wax nag démb a dégg naa bi nga def session bi nga see nga wax ko man suma bopp nag loolu laa daan wax waaye guess what dañ a ci jàngal Ramatulaay ci Tambambalu moo doon interview ku ñuy wax Maam Demba ah, di ko xarañ théâtre kat Maam Demba Cissé a play woon loolu ma laa encourage ak képp kuy déglu nga seetaan interview boobu because dina ci bari dañ dee faral di wax ne tungu ne du teew ñuy nataal ñun ñëpp man ak yow ak ñun ñëpp that's what we used to say until I watch that interview ma seetaan ko dégg nga maam Demba muy leeral loolu ne duñ ne tungu ne du teew ñuy nataal dañ ne tungu ne du teew ñuy natta ndax meeso lañ wax su teewee ñu war a natta foofu noonu kan moo sut ak ku sutut dina gaaw a gis boppam foofu am uh, daan uh, ñu ne tungu ne du teew ñuy nataal so kon si kanam tungu ne du teew ñuy natta dinañ def ni jéem a jokku am um, uh, ñooñu nga xam ne ñoo responsible ah, ah, ah, yi nga xam ne moom la ñuy wax seet yan kàddu la ñuy génne ci seen i gémmiñ su so weesoo tamit Iba Sarr ki nga xam ne mooy Euh, Fabakary Tombong Jatta ak waa APRC dinañ leen jokk ñoom tamit gannaaw bi nga xamee ne def nañ seen rally bi démba fifty thousand people rally bi nga xam ne ñu ngi ko doon coow for the past one a half month coow lu bari am si bañ leen for questioning two three weeks ago bi ñuy def suñ show bi ñu indi woon kii di MC Cham of GDC mu leeral loolu ganaaw bi nga xamee ne GDC jël nañ solidarité ak waa APRC ñu waxtaanoon ak ñoom dinañ indi Fabakary Tombong Jatta leneen loo xam ne bëgg nañ ko leeral ak ñoom mooy nataal you di circulate on WhatsApp ne dañ attaque waa APRC yi am euh, fële ca Gambia ñi nga xam ne ñu ngi doon ñëw Busumbala lañ leen attaqué gannaaw bi nga xam ne ñu ngi joge jógee ñu di ñëw ci Greater Banjul area bi pour ñëw atteindre li boobu noonu dinañ waxtaan ak APRC leadership bi tamit niñ leen jéem a jokku seet lan mooy gaay seen tontu si am loolu noonu soo di nga gis ne kon am na solo Iba Sarr foofu la ñuy génn gaay yi kon duñ def dara rek loolu ñu seetaan some of what Halifa am had to say to bi nga xamee ne mit na ak ñoom ñu extract some of those things rek den su ko defee suñ paree Iba ñu door a dugg ci waxtaan bi yaatal ko ndax lii lu am solo la comme ni nga ko waxee ci gannaaw rek mais tungu na ju teew ñuy natta Halifa moo wax waxam ne bi mu demee London lan la fa jëlee ak lan la wax kooku duñ mun a indi all of it dinañ leen indilaat abstract of it ak li nga xam ne moom ci tànk yooyu la taxaw ak li mu wax ne loolu la moo def am ah, su paree ak ak and like den su ko defee ñu dugg ci loolu rek jéem a jokk ñeneen ñi nga xam ne am nañ essai wala am nañ ah, baat wala kàddu ci li nga xam ne moom la Halifa wax Eva Sarr kon duñ def dara lu ñu ànd ak Halifa Sallah rek ci statement ah, boobu nga xam ne def na ko ba fële ca Banjul bi nga xam ne na tese naag tànk ñu def ko ngeen balal ma rek that was the second video first video bi nga xam ne moom la def ci english rek moom laa doon jéem a play ñu indi boobu rek su ko defee am yëf yi gën a leer incha allah kon buñ def dara loolu ñu indi leen loolu rek di jégalu bu baax a baax a baax um, on on on on dat gannaaw bi nga xamee ne xalifa sàlla toog na pare pour jël parole lan la wax taskati xibaar yi gannaaw bi nga xamee ne toog na may jégalu si loolu bu baax a baax a baax kon des des guys yéen a ngi déglu tax Gambia du dem soo jógee ci Gambian Talent Radio Pa Ousmane gannaaw maa What this cake has be a citadel of unimpeachable integrity and unassailable Namely, the press release ran over the state media regarding my London trip and the remarks emanating from Mr. Sandoval, an employee of TRTS, which is causing disquiet among our membership in UR. I have conducted my investigation and I would like to report to you that the press release I am giving is not signed by the Secretary General, Office of the President, and is not quoted by anyone It bears no date. At the bottom of the press release, the name of Madam Abby Golden Cicero was put as contact person, not as signatory. How do I intend to handle this matter as a national people? The answer is simple. Madam Amigojan Sisoho is the public officer. Section 222 of the Constitution states, in the performance of his or her duties, a public officer shall observe the following rule. A public officer shall respect and comply with the law and shall conduct himself or herself at all times in a manner which promotes confidence in the integrity of public office. A public officer shall acquire such professional competence to enable him or her to perform the function of his or her office with efficiency. The public officer shall not, in the course of his or her official functions, and without lawful excuse, do or cause to be done any action which is prejudicial to the rights of any other person. In the exercise of his or her duties, the public officer shall avoid nepotism and favoritism the public shall not employ others to convey the impression that they are in a special position to influence him or her. The public officials shall take appropriate action with regards to contravention of this code by members of his her staff or others subject to his her control. A public officer who does any act prohibited by this code through an agent shall himself or herself be deemed to have done such act. It is strange that GRTS decided to broadcast such a dubious press release. I will therefore take the matter up with the Attorney General and Minister of Justice, the Principal Legal Advisor of the Government, and the Director of GRTS for the request for the retraction of the press release and the broadcast of an official appointment. I do not want them to wait until I take the matter up with the Office of Ombudsman for them to reveal who ordered the press release and why the person is not honest enough to cite the document to make it authentic. An investigation by the Office of Ombudsman the abstenez-vous uniquement pour ne pas in the d'imputation. Furthermore, I have read the transcription of Mr. Sadio comments and will submit them to the Director General of GRTS for review and action. We will demand for retraction and apology where it is well deserved. Take the issue of the transcript should be objective and honest be. They worried about the comment of the broadcaster that the papers were given from the National Assembly levels by a general president so that they were very patient in their consequences and do all the consequences chose, only to come back again to tell them that the victims killed on the generous and anonymous product. Should the media practitioner of the game's experience make remarks safe and public integrity of some national assembly members will be to receive the transport into this report in close as regard of the death and spirit of their constitutional mandate. The basis of joining a national assembly member is clear. Section 112 of the Constitution defines the responsibilities of National Assembly members is with the responsibilities of the members of the National Assembly can include the following. All members shall maintain the dignity of the National Assembly both in the sittings of the National Assembly and in their acts and activities outside the National Assembly. All members shall regard themselves as servants of the people of the land. Desist from any conduct by which they seek improperly or erect themselves or alienate themselves from the people, and shall discharge their duties and functions in the interest of the nation as a whole, and in doing so shall be influenced by the dictates of conscience and the national interest. That is the responsibility of the National Assembly. Guided by this constitutional dictate, we indicate for all who ask us for the reason why we have not taken any transport that are official transaction between the Office of the President and the National Assembly shall be done in writing. In the same vein, the National Assembly serves must communicate all commercial transactions with the National Assembly members in writing. We have said in no uncertain terms that we have not received any official correspondence covering us transports and stating the conditions surrounding the offer and the use of the trust. Okay, ok Eva, you MLA, you finish. Khalifa, before bi foofu dégg nañ mom la honorable Khalifa Sala wax Iba Sarr um dafa melni we have a caller on the line ñu jël caller bobu hello caller hello caller bi alaykum waaleykum salaam baas moo leen de jaama rek way nak nga def sante yalla yàlla ba ligge bi ñu ci ko waaw sante yalla ben bari nak nga tudda ak fay kolé ma ngi tudda Sana ma ngi kolé from the US from the US okay Mr. Sana welcome to Lutak Gambia dem Show Okay, look at algorithm so be sometimes saying the name of the program sometimes it matches exactly the topic that I'm going discuss. sometimes. yeah, sometimes. <laughs> sometimes it matches though. <laughs> but as it favors you, now I'll be quick to for you. Maybe as it favors you. Why all the time you know, I can tell you the linear discourse it matches it up. Why continue you? that, that's my point of view. So and it's respected. My, my opinion there, my political product. Sometimes uh-huh. them uh, same topic of the hmm. contradict with the, the title Luther Gambia, Why sometimes it matches. Uh-huh. So, dañ tam ñeneen duñ ko gisee noonu waaye man noonu laa ko gisee. fair enough ku nekk ak opinion respected. <laughs> <laughs> Uh, first of all di leen gërëm rek di baax di. ngi def most of us have been aware of what is going around especially back home. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ok li ma bëgg contribute ci seen topic bu tey mooy rek comme like about Halifa Salah's case man personally. Um, I was one of the number one admirers of Ali Salah. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. But lately, to be honest with you, I'm second Khalifa Muhammad W. Mm-hmm. Um, I'm very disappointed in him. Okay. To say that I'm very disappointed in Halifa, is even an understatement. Okay. Yeah, because man, Khalifa Lumdong was from 35 years ago up to now. Uh huh. Man, right now, around to condemn what he was preaching. Mm-hmm. Alpha is even becoming to be worse than Yaya. <laughs> okay. To tell you the truth. Because, first of all, mm-hmm. press conference which the president's office, if anybody listening to GRTS news broadcast, mm-hmm. it was saying that it was stated in the uh, in that news broadcast that mm-hmm. a statement from the director of press and the mm-hmm. office of the president. Mm-hmm. I think that clearly tells us that mm-hmm. this press release from the office of the president. Mm-hmm. Do we expect the office of the president to go back again and mm-hmm. respond to Ali Fapulwa Newao? This press release from the office of the president. Mm-hmm. I think the president of the president of the office is too big for that to back and forward mm-hmm. with an individual or especially somebody who is in a parliament. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Why I say I'm also disappointed in Alifa is that mm-hmm. is it that is after the Alifa's way or nobody's way? or Halifa's idea or nobody's idea. Mm-hmm. If you look at Doi as a party, mm-hmm. it's always about Halifa. Mm-hmm. Halifa said, Halifa said that we mm-hmm. don't hear from Sidia, mm-hmm. we don't hear from Aminata Silla, mm-hmm. we don't hear from Usman and all that. It's always about Halifa said this, Halifa said that. It even it even becoming that Doi is even becoming a one man party. Just like Yaya. Mm. because APRC was a one man party mm-hmm. everything was about Yaya Yala mooy Yaya mooy doxal mooy wax lu wax loolu am so I'm scared that Doi is even becoming such a party mm-hmm. and I'm also scared that Halifa the younger generation nga xam ne mu leen a brainwash these days man ñooñu naa yërëm mm-hmm. so loolu moo nekk suma moo concern Halifa moom def na léegi not my problem moom def na lu mu war a def moom time am bi passé na maybe he's coming to his end waaye mm-hmm. the younger generation nga ne ñoo ko follow di foog ne Halifa is one of the most educated or least educated person mm-hmm. man ñu ñëw suma concern because man lu ma gisee affaire yi mooy Halifa right now is either his way mm-hmm. or nobody's way wala woon nu mu ko xalaatee noonu la war a demee wala du noonu wala moom constitution bi rek moom moo ko xam su moo wax day quote from the verses or sections of the constitution to ko complete or you will not even know what it is trying to uh, uh, explain here mu jog dem feneen Mm-hmm. mu nekk nag jaxasoo gaat ndax ñu foog ne Halifa is one of the well educated Halifa moo ñu gën xam constitution bi mm-hmm. constitution bi big book mm-hmm. constitution bi dafa dig trop constitution bi dafa mel ni comme courant di nga di nga jël beneen section fale nga bugg a jël jël beneen section fale ñaari section yi soo moytu sax déwul contradict di mbooloo bu ngay waxal nag nga jaxase leen ñoom xam dem dina Halifa Halifa so the president of the office is too important for that and too big for that. However, hmm. mom lu ko ne mu wax kenn ko wax dara keneen su waxee rek mu ne dama laa just look at what as a journalist right now yéen seen journalist yéen ñëpp say right now pa yow pa Ousmane hmm. keneen ak keneen ñu xam ne yéen nekk ci journalist field you people are not even safe right now hmm. when it comes to Halifa, and, right now, you know what Telu and Halifa. Mm-hmm. Well, I'm going to read the statement that doesn't match with Halifa. Halifa will say that tomorrow, I'm going to sue the Gambian talent. Mm-hmm. the next thing that we will hear from Halifa is that I'm going to sue to so, or I'm going to sue far and stuff like that. Uh-huh. uh-huh. Making, reading from a, Zoom, a, a newspaper. Mm-hmm. And Halifa is trying to uh, uh, threaten, because man, I'll call it a threat, mm-hmm. that he want to sue Saja uh, because of the way he reading uh, his news from that mm-hmm. newspaper. Mm-hmm. So then Halifa is even becoming more than Yaya, more mm-hmm. dangerous than Yaya. Mm-hmm so first façon mota the programme became tay the title of the program majna ak topic because tay halifa lu mo halifa lu mo behave bi je man uh-huh. li mota gambia du dem mota gambia du dem <laughs> appreciate yeah. next contribution bu ba ba <laughs> thank you very much uh, kola it was a big nga kola bi lim wax ak big nga am um, am uh, um, uh, halifa sall li nga xamne mom la jotta wax iba right waaw eh. Gambie pour askan bi ay ñu ngi tasaare lu def moom lañ def na gaay pick up suñu analysis ñu analyse li nga press meeting bi nga xamante ne Halifa def na ko from his mm-hmm. return back home mm-hmm. welcoming mm-hmm. the everything yëpp dinañ ko jël càmbar ko nag te duñ ci xool buti kenn duñ ci xool lu neex ma samba duñ ci xool lu neex ma demba lu tax kanam bi ma ko dama pare pour ñuy saaga nañ saaga ndig dina ñëwee foo xamante ne xooluñ lu neex ma demba xooluñ lu neex ma sàggal yéen ñi nga xamante ne yéen cyber yoos ngeen get mhm. yourself prepared nañu <laughs> maanaan wax ne saaga waaye bu leen neexee enu leen te na ca dal <laughs> euh, rafetlu nañ ko lii la Gambia lañ wax waaye nag éti politique bi jamono ji Mm-hmm. Eh, tey na xel eh, sagara ngay xeeñ te bu ci kilifa diine yi jógul rek dina egga foo xam ne ëllëg dinañu jural musiba bu fekkee mm-hmm. am nañ comments ñu read comments yi nga xam ne ñi ñoo bàyyi xel ñu ñoo seetaan den mm-hmm. soo paree suñu amee ami bojang si soxo because dafa war a nekk ñaari story ami bojang last week am nañ ko dégg nañ lu mu wax nag eh, mu doon mbetteel bu rëy ci ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci média maanaam beneen bi am na point moo nekk ne dañ ko leeta call tëdana mënoon na faa am waaye wax bu mu wax lu ñoo wax wax nañ ko ba pare loolu du róoram te loolu taxut Gambie yéen óolu leen ba teg leen fa kon ci kanam dinañ amaat ami Bojang ñu seet ndax ci meloom la ci jikkoom la ndax ci liggéeyam la incha allah Pa Ousmane yëpp la muy door yéen saagakat yi nag bi préparat pour ngeen saagandi te dinañ wax loo xam ne waa UDP du leen mm-hmm. neex dinañ wax loo xamante Gambien yuy déglu du leen neex dinañ wax Halifa tamit ak groupe am lu leen du neex képp ku bëgg a saaga rek cyber police we are welcome aha uh-huh. Iba um, uh, jërëjëf uh, appreciate na comment bi nga xam ne nga ko uh, si gannaaw dafa mel the video has ended from message bi nga xam ne jot naa ko ne the video has ended is unfortunate nag lu tax mu end I don't know waaye ñu delluwaat rek um, pour um, defin xaaral ma seet fii nii ni ko di ñu wax ne joboot du gaaw ñu seetaat rek si diggante bi ma play waat this music rek while we get that actually um, uh, going, you play this music while I check that out, Eva. You continue like at that ending. Um, maridadi alkana ka fitnoti maridadi cambia el amor que brinda el dolor. Cambia, cambia, Pulmino musical, ñu ngi leen ay ci beneen yoon yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu di ñu seetaan ci lu tax Gambia du dem rek that video was getting interrupted oh, moo tax ñu indi waa Tronco am di def lii nii rek ñu ngi leen ay bégee di leen àq bu baax a baax a baax ci break boobu wala code boobu nga xam ne video bi mu ngi ko doon skip ah, jaam ak pexeem yàlla ak dogalam loolu moo tax ñu leen a ñaan rek pour ngeen jàppale radio bi jàppale plateforme bi ndax these are some of the reasons yoo xam ne dinañu help ba tax am ñu gën a mun a def liggéey bi ci niñ ko war a defee incha allah kon ñu ngi leen ay ñaan di leen ñaax pour ngeen jàpp ci radio bi ndax jàpp ci radio bi mooy jàppal seen boppa kon Iva gannaaw bi nga xamee ne dégg nañ ah, ah, ah, loolu di li Halifa Sallah wax um, uh, ngeen ñu read some of the comments rek which I think makes a lot of sense ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di ñu seetaan lan mooy seen xalaat ci yëf yi ñoom fan lañ gisee am um, uh, uh, ci programme bi su ko defee ñu continuer rek kon um, David Jackson mu what does TPRC stand for please am um, loolu laay laajte Eva mun nga koo tontu loolu <laughs> APRC, like the LANLA stands for, APRC stands for Alliance for Patriotic Alliance Reorientation and Construction. Alliance for Patriotic Reorientation and Construction. Uh, I mean Alliance. Alliance. Mbolo, Alliance, Mbolo. For Patriotic, Mbolo. Mbuga Senreu, Mbolo reorientation No, xam ne dañ ñëw pour dekkilaat seen boppa defaraat seen boppa they want to reorientate themselves am construction ba pare nag liggéey job moo tax a APRC is an alliance of patriotic citizens who want to reorientate themselves to actually construct the Gambia an alliance of patriotic Gambians who reorientated themselves to construct the Gambia. Lola APRC means Alliance Alliance for um, Patriotic Reorientation and Construction. Um, Jeff David for that question. Jenga Mohamune, welcome back to Gambia uh, first before anything else, uh, Mune, because of those ones and the reason is the reason why Gambia not going forward. Uh, mom loolu la wax foofu la uh, macha iba dafa mel ni am nañ e koola ñu jël koola boobu noonu rek ah, salaamaaleykum sëñ bi naka nga def waay waaw sant yàlla rek alhamdulilah ah, tur bi ak fooy koolee nga tan koo leb <laughs> ah, waaw man koola boobu rek laa bugg وممكن تجي آه، نفسي خليفة قام عندنا ورا خمنا خليفة نجيب طبعا your music please خليفة نجيب مدبولة كل يوم ما تجيب ci euh, jamono bii ñu toll nii. Mm-hmm. dina métti lool dina jafe lool. ñu bëri si li mu wax ne xalifa. Mm-hmm. moom bëggoon na ko. Mm-hmm. waaye toog na ba léegi buggaatu ko nit ñi mooy doxale. mu jël particularly concerning this press release. Mm-hmm. Uh, Pak Usman. Nah. Khalifah Gambian lah. Ya. Mm-hmm. Kiduwiwi lah. Ya. Mm-hmm. Ken upaliwuko kidekati. Mm-hmm. Gambia ken upaliwuko ken yinye moo ci kan. waaw. ku ci nekk karta ba nga amee. di tànn ku la neex moom la sa morom am dëggit xali xalifa su fekkee ne GRTS génne nañ te press release moom di ko castigate te moom ci boppam mu gis ne mhm. ba mu duggee ci politique bi léegi mhm. lu soxal Gambia suba ak ngoon guddi ak bëccëg mhm. ci lay dox lii jëmal Gambia kanam ci loolu lay dox mu toog dégg mu wax ne moom doxul ci loolu kon xalifa am na right mhm. wax jooju noonu mhm. mu toppa ko xam-xam jóge fan la mhm. xam ka ko wax kan la su ko defee mu mun a leeralal askan bi moom fan la teg waxam jooju mu wax ne xalifa suxali réew mi soxalu ko léegi su fekkee ne moom nit ki la. di def investigation am. mu ñëw gis ne press release kooku noonu jógee ñu wax ni State House la jógee signing ko. te any press release bu ñu jógee State House. dañ ko war a sign. waaw loolu su dee ñun Gambian ci am xel. di xalaat hmm. te amuloo parparloo bu nekk sa xol hmm. ji jiitaluloo xeet hmm. yow gambia rek nga gis gambia rek nga jiital war ngaa mun a laaj sa boppa question bi te mooy ne waa press release naka la mun a jógee présidence office te sign ko ana lana waral loolu Lalu hmm Nolike yang kwa. Mm-hmm. Jadi hmm Keje tibula warga munala keche mbubu konsa bofa konsa ni mm-hmm. Mm-hmm. mom dis na ne am am na ñuul ñuul ci hmm Wow. Dissociation of character dafa am ci Wow. si suma xam-xam bu ndaw loolu xam naa ko. dafa am luwa ba dafa am ci luwa. soo kon su fekkee ne yéen yéen a maa jiiñ yoo xam ne man bi su ma jikko. Mm-hmm. kenn ka bi am luwa. Mm-hmm. am na am na right dama maxana nekkee deena. Mm-hmm. setal suma boppa. Ah. ne yéen li ngeen jiiñ du man. Mhm. ndax xalifa amul benn right waaw citizen si moom ñëpp am nañ right waaw loolu laa doon bëgg a wax ne citizen si yëpp am nañ right boobu ku ne ku ne ku ne fu sa right em foofu la right yi keneen commencé absolutely ừ absolutely so kon moom li moo kon moom point bi moo élaboré ne xalifa is becoming like Yaya Jammeh ừ moom juum na fa mhm. na xam ne xalifa jaam mhm. bi yoon la li mooy def mhm. raytam la de kon nañ ko bàyyi mu toppa raytam lépp lu ko ci waay wax nag tooñ la ko jërëjëf Kola <laughs> na ko jërëjëf Kola appreciate nañ sa kool bi <laughs> waaye sa yaram dafa mel ni dafa tànga ba waxuloo ñu noo ak fooy koolee de ndax danga ko bëgg a lekk. non non doom baay la. Mm-hmm. Ah, ah, ah, dama ne woon rek parce que maa ngi laa déglu soo moo mm-hmm. déglu ci li mu mm-hmm. rek xaaral ma ñëw. intervention ci ko ne ko moom. rek. <laughs> lépp naa ko baax baax na soo ko buggee rek ñu lebal la ko incha allah waa jërëjëf apprécié nañ ñu ngi sa dugg si bu baax a baax. you um, very much. jërëjëf yéen a déggandoor kola boobu dugga si ne mu ngi leb tur bi ak fan la moo kole Iba Sarr li nañ expect yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di déglu di ñu seetaan dugga si leen ñu waxtaan waxtaanee li nga xam ne mooy yóbbu suñu réew kanam dégg nañ kola boobu noonu kii njëkk a dugga si uh, express disappointment am si Halifa Sallah ne fala bokkoon waaye génn na kii dugga si jàppale Halifa ne moom kat ni mu gisee Halifa moo nekk ci dégga am nañ beneen kola bu dugga si ñu ngi laa nuyu kola di la laaj am naka nga tudd ak fooy kole ndax danga ko ka Hello, daal ka Yeah, Kola yi bañ nañ I tudd waa allo Fatma naa def jàmm rek a call nga tudd ak fooy koolee waaw sana laa tudd kooloon naa before ok waaw comme si waxtaan lañ nekk rek nekkut back and forward mm-hmm. so we nga understand little more than a call back No, that's fine. That's perfectly fine. Everybody is entitled to their opinion. Like I said, ñun lu ñuy advocate rek we. lii nga xam ne moo di go on healthy discussion kenn bum saaga Ken kenn bum xas kenn bum ŋàññe kenn waaye ku nekk am nga sa right yi ñantu sotole ka fo li nekk sa xel ak xalaat fee li nga wax yaa ngi ko àndale gi rek teggin rek inshallah we will give you the platform to say whatever you want to say is what that's on your mind that's your opinion and we respect that thank you go ahead thank you so my my response is going to be to the last caller bu njëkkee wax ni wow because he was responding to my uh, agreement that I made earlier too mm -hmm. Okay. Respect my opinion, um. with due respect to him, I respect whatever he said, and I know that's his opinion. Mm-hmm. And he's entitled to it. While hmm Wale mo understand moy comme kanye wa right right right now when it comes to the word right mm-hmm. maybe Gambia mm-hmm. a population of 2 million plus mm-hmm. out of that 2 million people kan am right power, i am right thank you so if we are talking about right right everybody has right lu waaye la man tam lu wax suma waay la. muy dëggit muy dëggit te ku nekk waaw waaw ku nekk si yéen mun ngaa jàppoo fi nga jàppoo benn jàmba di sa dem ba ba a jëli Halifa am every right to respect Halifa ay man tam am every right to respect Halifa waaye respect nit bëgg ko sopp ko taxul ne mhm. whatever he said I will say yes to it or whatever he says I will agree with him which is very fair which is very fair. respect na Halifa trop. Ibn hmm. Surdrasa mut na ma bàyyi waaye. Hmm. dama la bëgg a explain na nu ma gisee nu right now Halifa was part and parcel of everything from day one. Hmm. Dapat mel ni si man doo jur neene boo xam ne ko jur nga koy jox lekk muy lekk nga ñëw jël si baat bi ko bugg ko rey ne ko ne ko non <laughs> noonu laa gis noonu laa Halifa di def when it comes to the coalition. <laughs> kooku la kooku la boobu rëy na de <laughs> xottal doom nii ah ko ko releases we have so many press releases from the office of the president which have never been signed and they are not signed before mm-hmm. Mm-hmm. but nobody has ever questioned that mm-hmm. now we are questioning this particular one number one number two Halifa lu mu Maluko. kenn tuumalu ko la in a meeting in London or Belgium mu wax ko nit press that Suleiman Bata Mupinda bind ko nit Mm-hmm. So the press release was referring to what he said, the words that come from his mouth. Mm-hmm. Mm-hmm. So Khalifa is now Khalifa is questioning the mm-hmm. press release that came from um, um, um Stairhouse, whether Stairhouse was geographic Kenya and mm-hmm. Fa Usman uh, uh, yow mu xam Khalifa maa mu Khalifa ak waay bi tuddee wax ni xam Khalifa. Demba mm-hmm. ku gisoon press release am bi muy That's not the Khalifa that we know. That's not the way Khalifa talk. Mm-hmm. Right from that place, you can know that Halifa is angry. Mm-hmm. Halifa is no longer out of uh, uh, uh, out of control, like that. Oh, mm-hmm. mm-hmm. And that's not the Halifa that we know. Just yeah. i telling me that Khalifa Mob Amna right, mm-hmm. look on there. Mm-hmm. But if somebody responds to him, then it's Um, and yeah. is that the democracy that he's calling for? And is that the democracy that Halifa have been preaching for the past 40 years? Mm-hmm. No. More than Manila, I was an admirer of Halifa. Mm-hmm. uh, um, the coalition bi une partie bi bu nekkoon baa ñun up to the uh, uh, balaa ñoo def inauguration bi ñëpp xam nañ a role that we play. Mm-hmm. Halifa is the elected member of Sierra Kunda West mm-hmm. man musuma gis ba léegi Halifa génna neen about Kunda West. Mm-hmm. gisaguma Halifa génna about uh, having a press conference about Sierra Kunda West. gisaguma Halifa génna mu ne dafa am projet wala programme bu ñu def in my constituency today. Halifa is touring the whole world right now talking about criticizing all the time moo tax la man su ma defu ko defu ma ko su ko waroon a sànni karata. Mm-hmm. If next election is coming, I will not vote for him because of how he is going right now. Mm jërëjëf voilà everybody have right this is my right so nañ leen bàyyi du wante du attagante ñëwaat nga express sa booba wax lan mooy sa opinion mm-hmm. loolu moo programme yi ne te sa programme bi tam jox waaw jërëjëf loolu apprécié nañ ko waaye fooguma ne da ngeen nekk di attagante wax dëgg yàlla ci manit suma gis-gis yéen ñaar yëpp ku si nekk express na sa booba ci ak and that is what we expect yow soo waxee dara moom am am am am di opinion different from yow seen ñëw mu respond yow sa am opinion yow it nga ñëwaat nga wax ko wala keneen ñëw yokk si xalaatam foog naa ne loolu lañ bëgg a àndal di démocratie ana it is a the word that he used nga yaa ngi déglu programme bi te déglu yaa ngi ko doon déglu ko doon déglu bu baax bu su fekkee ne bu am xel mm-hmm. ok you, feel, feel offended you feel offended bu am xel mm-hmm. that means somebody responding to Khalifa or somebody criticizing Halifa amul xel mm-hmm.

comme ni ñu ko indi rek ñun ñu xam the facts. they will separate um um um um um the truth from falsehood Mo ñu tax a jóg tey dinañ ko def tuddi letter Um dinañ def do do contact Ami Bojang so balaa mo le si boppam You said lan mooy ñoom seen stance since moom la Halifa mention si yëpp kom comme niñ ko waxee dégg nañ Halifa dégg nañ li mu wax ak jéego yi mu ne moom la moo jël balaa moo leet dinañ doon bugg diagnose linga nga xam ne moom la Halifa wax waaye balaa moo leet duñ def dara lu contact Ami Bojang rek ci jamono ji am um, ñu seet moom mi nga ne mooy nday bi léegi moom mi nga xam ne moom la Halifa wax ne actually moom moo nekk on the document as a contract person but nobody's signature is there moom mi nga xam ne mooy di mouthpiece di gémmiñi nguur gi ci jamono ji ñu wax ak moom rek seet ko last week koloon nañ ko suñ ko jotutee tey am last week biñ ko kool xaloon naa guddi waaye tey moo tax ñu bëgg a profito rek teel a contact Ami Bojang hopefully we are able to get hold of her and then we will take it off from there kon ñu ngi leen a déggee ci lu tax Gambia du dem so jërë ngeen jëf ñu déglu rek jokk ci jamono ji Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Uh, Miss Ms. Bojang, how are you? Fine, thank you. This is um, this is Pa Usman Juf calling you from Gambian Talent Radio once again. Uh-huh. Um, waxoon nak yow last week maa la call briefly di la la ci affaire press release bi but um, yaa ngi mu ngi fekkoon mu guddi um, ngeen tëddoon nga respect respectaloon la lolo. démba nag ñu gisaat honorable Halifa Sallah génnaat nag defaat press conference be xaasal la si mention si sa tur and according to him mu ngi ne press release bi um, Bindana Satur, it has your name, it bears your name as a contact person, why it is not signed by the office of the president um, ñu ngi live on the radio ñu bëggoon a xam rek ci jamono ji from yow um, li nga xam ne moom la Khalifa wax ne press release bi um, amul any signature ndax si office of the president la jógee or not because people are concerned and would like to know actually whether the press release office of the president la jógee wala jógee wut foofu amuluma la wax si loolu parce que loolu wax nañ ko ba pare. fan lañ ko waxee. bi ma amee press conference wax nañ liñ bëgg a wax liñ war a wax ci press conference press release release nañ ko It's in the public I'm sorry ama dara lu ma wax si loolu. so mun loo ñoo confirmal ndax office of the president la jógee or not. ma ne press release buñ génnee génn na fa press release bu jotuñu office ñu ci ñu ci public bi. I have nothing else to say on that. Lima Jima confirmed like more in the office of the president, new release it's from the office of the president because Khalifa is insinuating should understand in what name. Um, I'm very sorry. Mm-hmm. I cannot con- uh, have an interview with you on this issue. So Lim mentions I'm very sorry. Lim mentions that too. No, mentions. Lolu suma problem. Mungi Anybody mention. can mention my name. Mangi in a public uh, place delegate. So, I'm very sorry. I Munuma continue the interview. I'm very sorry, Balama Hadin. Okay, jërëjëf Jeff. <laughs> Thank you very much. yéen ko gisal seen bopp Gambie yung dem ñu yung xaj bu sale bu sale waaye ami mu jëng tera lu mu sant lu mu jàng jàng lu mu sant bu de ah ñu dégg ami bu jàng li nga respectal ko ko mu ne du respond loolu du ñu tontu Um, uh, amul leneen loo xam ne loolu la moo wax ci affaire yi press release bi amul dara lum ce wax uh, dégg nañ li Halifa Sallah wax uh, comme ni ma ko waxee bëggoon nañoo contact Ami Bojang balaa moo gën a guddi um, pour waxtaan ak moom gannaaw bi nga xamee ne last week jéem nañ koo jokk pour wax ak moom and she was not um, in a position pour wax ak ñun parce que guddi woon na ci jamono jooju fiñ toll tamit. Euh, ñoo ko déggandoor te euh, li nga xam ne loolu la wax waaye duñ def dara lu ñu dellu gannaaw tuuti backtrack tuuti rek iba lappatoo li nga xam ne moom la Halifa Sallah jot a wax pour break downal ko askan wi su ko defee ñu xam ko déggal ko suñ boppa Halifa Sallah gannaaw bi nga xamee ne nekk na London wax li moo wax dellu si waat nguur tontu ko binda li ñoo binda dégg nañ li mu wax ci angale lim jot a wax pour tënk ko mooy ne mom nekk London garal na ay kàddu nonu am jog na suba deg nguur gi wax ay kaddu si mom lan la nguur gi wax ñu ne mom kat khalifa Sallah wax moko ko gënal liggéey ndax ñom oo nañ ko pour jox ko place pour mu liggey wax ji moko genal gënal ñu dem nak ci biir press release bi garal fa ay points yu bari ridal nañ leen ko last week point yoo xam ne ñu ngi faa wax ñoom li nga xam ne jot nañ koo def as nguur biñ toogee ak tey loolu mooy li nga xam ne moom la nguur ki wax ñu tëjee ko nag ne Halifa Sallah jox nañ ko place mu bañ léegi nag ay kàddu ay wax moo ko dese na continuer di wax ñun jox nañ ko place pour mu ñëw liggéey ak ñun nanguta liggéey Halifa ay kàddoom dégg nañ li mu wax benn mu dina jot gestoom bi mu London wax na ko bim mu egsi airport bi ñu interview wax na ko ne bala mo jóg def anything dafa dem def investigation am balaa moo wax anything su paree def press conference waxtaan ak taskati xibaar yi which is what he did yesterday bi mu press conference yi lu mu wax mu bi si njëkka dem na gestu ci gestu bim mu jot a def am uh, kii di Ami Bojang soxo mooy kii ma doon waxal léegi ni nga xam ne moom mooy yore cadre government bi cadre nguur gi moom mooy wax ci turi nguur gi moom Ami Bojang turam moo nekk si press release bi comme ku bugalu la leer ci affaire yi loolu nang ko contact ku bugalu la leer si affaire yi press release bi nang ko contact waaye amul ken koo xam ne sign na ko wala ku wax ne am am am am am ah, déetuñ koy tamit binduñ fa déet ne bés sangam lañ ko binda time sangam ak diw sangam moo ko sign mu ne nag ganaa demee na noonu li def mooy dina dem si ki nga xam ne mooy attorney general Batambe du nga xam ne moom mooy gémmeñi nguur gi moom mooy adviser nguur gi seen legal adviser lépp lu méngoog affaire loi lu nguur gi war doxal kii mooy ki nga xam ne moom moo xam luwaay réew mi moom moo leen see xelal ne leen lii ak lii ak lii ñu ngi ko def warut lii ak lii ak lii ñu ngi koy def dafa war lii ak lii ak lii ak lii nii lañ ko war a doxale soo mu ne dina njëkk dem si kooku waxtaan ak moom joytul ko li nga xam ne loolu la parce que moom public officer la moom national assembly member la dafa tukki te bi mu tukkee kat dafa demoon waa doy yi ñoo ko yóbbu woon foofu maam mu dem pour am ak ñoom meeting am ñoom waxtaan waaye ci diggante bi am na yu bari yo xam ne jot na koo def moom Halifa Sallah foofu noonu am ku seetaan the whole video which amuñ time pour play ko fii maak Iba seetaan nañ ko déglu ko dégg nañ li nga xam ne moom la jot a wax wax na meeting yi nga xam ne jot na koo def foofu noonu I mean with national with parliamentarians in the UK am na groups yoo xam ne yi nga xam ne dañ daan participer ci Root Coming Festival bi waxtaan naak ñoom waxtaan naak yeneen askan waxtaan naak ay Banjum at different places even represent the government in some functions. si boppam sax am na yoo jot na koo def ci li nga xam ne la Halifa Sallah wax ne loolu la defkat bi mu nekkee la wax ci press conference bi mu dem leeral tamit nag li mu wax ci affaire yi moto ne moto yi nga kat ñu ne office of the president dañ ko jox national assembly members yi ñoom doori members yi nga xam ne ñoo nekk ci parlement bi ñoom ñent yëpp kenn jëlut ci oto yooyu noonu mu leeral loolu ne lu tax jëlut oto yi lu tax jëluñ oto yooyu noonu mooy ne kat ñoom liñ gom as national assembly members lépp lu ñoo def dañ ko war a jaarale si yoon binda ko ba tey jii ñoom amuñ bind moo xam ne jógee na ci office of the president bi leen a xaasal di leen wax ne kat oto yi office of the president ñoo leen ko jël jox leen ko oto yi kat sarta yi lañ leen ko joxee lii ak lii ak lii si war a def lii ak lii ngeen si war a def ne verbal communication rek verbal directives lañ leen jox wala verbal communication rek lañ am ak ñoom ne leen fii la jógee li mooy li nga xam ne Iba Sarr Halifa gaaral na ci kàddu am ci press release bi nga xam ne def na ko mu dem fooda pour waxtaan ak askan wi fàttali askan wi li nga xam ne moom def na ko gannaaw bi nga xamee ne kat nguur gi toogoon am toogaguñ Yaya Jammeh win nañ ko mu mooy ci am presidential seat bi ne du génna yi nga xam ne moom mu ngi doon def di communiquer ak soldats yi di communiquer ak Sénégal di communiquer ak waa ECOWAS di communiquer ak ñi nga xam ne dañ amoon wareef yëpp mune liñ ko ñëk wax liñ ko wax nii ne kat moom parewut ta jël place mu ko ñëk wax président baro bi nga xamé ne tok na mu ñëk ko oo si la ko wax né mom he is not interested in any president in any uh, ministerial uh, position fofu la ñëk waxé e président baro lolu bala am um, uh, egsi uh, even selection or nomination or appointment of president or or ministerial positions lolu moy li nga xamné ci si gàttal Iba Sarr Halifa wax na ko so amé li loo xam ne si vidéo yi nga um, khalifa wax na ma faté ko rek soo ko askan wi bala ñoo dugg ci analysis propre bi ñew ci Ami yang ak li nga xamne wax nañu ko Iba dafa am lo bugg gayo ko ci li khalifa wax then you read some messages and we can continue tafadal waaw Pa Ousmane xalifa euh, euh, yaatal na waxtaanam bi bu baax a baax a baax ba tax na comme ni ko ñeneen ñi waxee la nit ku am jot na ku amul jot dafa mën a toog ngir ku nekk xam na waxtaane euh, honorable Halifa Sallah moom Halifa ba tey def na li nga xam ne moom la angale di wax di do and the don'ts of ñi nga xam ne mooy PDOIS wax na ñoom PDOIS seeni toggin leeralal na ko askan bi bu pare dem na tamit ñaax askan bi wax leen ne le anything loo xamante ne maanaam njuuj njaaj la duñ ci gis PDOIS ci gàttal maanaam ñoom duñ patronise kenn pour bu geen sit Halifa bokk na ci li nga xam ne wax na ko ba tey Pa ma yokkal la ci rek ci li nga ne nit ñi o nañ ko ne ko jox nañ ko place ministériel poste bi lu tax a rijek ko ci biir waxtaan bi leeral na ko ci kanam tuuti dinañ yaatal analysis bi ba tax nag waxtoom bi yàggoon lool def na in English def na in local languages muy mandinka ak li nga xamante ne mooy olof ba tey Halifa ba tey Pa ñu gis Africa euh, ñu ko li nga xamante ne musique la boo xam ne gis nañ sa airport bi ñu ko doon welcome ñu woy ko mu dem tam ci meeting am mu mel ni Halifa logo boobu am ñu gis tam si sam yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi ko welcome ci mistake bi nga xam ne Gambien si tam dañ ko def man gis nañ Halifa si suuf gis gaynde ci kaw lu mu ci mënti doon ndax Halifa dañ ko doon jox ko gaynde nde mu ci mënti doon rek si biir analysis bi dañu déggal loon ci leer li laa jota forangoom Papa Ousmane eh, ñu ñu ñu ñu bàyyi la rek su ko defee nga àggale den nga mm-hmm. recommend si ñoom itamit si lañ bokka comments aha Um, Lamin Kolimune, hey, Mr. Gentleman, we have new government now, so what we will do is to support them to develop, but we cannot see it in America or in somewhere else. We are always discussing about something very unnecessary about our own country. Bless you, night. We, we bring one love for one our country we are all equal for the Gambia as far as we are sitting. So we bring one law and one destination in the in our country, so that the position stay. Um, uh, Edward, big one, uh, before sitting with uh, Mumfufulagina Muhabara Munepa. Tell that caller to go and Kiss um, uh, UDP um, uh, jàngaa nañ uh, jàngaa nañ nañ nañ nañ rafetal rek uh, comme niñ ko waxee jarul xuloo jarul xeex ku si nekk na wax sa argument ci njëkk ak teraanga ak teggin ak uh, yar ak teggin incha allah ñu continuer Jibril Ndong mooy David David do you mean APRC samu samuwo mu yes is more more than hundred times um, moom um, uh, loolu la wax loolu yep calls yo xam ne la dugg nañ ci gannaaw Cheikh Tidiane Soxna mu she is very arrogant muy Ami Bojang la moo di Um Suna Njie mu ne she is arrogant Um uh, Diouf mu ne rude she said she is a public figure but um, acted very arrogant Uh, Babukar Mankamune, if Khalifa think that he has been accused, let him go to court and spare people with this um, issue that will not benefit the nation. Um, uh, Bas Jeng Munedi, thoughts are never equal, but what God gives good thought um, know well that what Halifa are uh, talking about. Um, uh, when things are hard, it was Halifa whom we all know. Armstrong Sisao, that's one side of story from Halifa Salah. Uh, no was there any no words there when Khalifa is telling the president Barrow mu no one was there when Khalifa was telling president Barrow um waaw ne daf ko njëkk a wax ne interest ci position mu that Khalifa's take um uh, uh, one side of the story so president Barrow is not um there um uh, loolu mooy li nga xam ne jot nañ koo dégg Iba Sarr uh, Ami Bojang comme ni ma ko waxee keroog kooloon naa ko pour wax ak moom uh, si biir um mhm, last week si kadom. um, dina play audio bobu rek gannaaw bi nga xamé né mënuñ ko wona a playal audience Iva ma play audio bobu rek den su ko defee ñu dugg ci analysis proper gi Iva am um, ñu déglu audio bi nga xamné last week interview bi mom lañ amon ak Iva Sarr am ami bo yakko let's listen time Oh, okay. Well, we were doing Gambian Talent Radio anyway. We're going to get some clarification, like uh, we have some questions for you. She apparently you in the Bingham Office of the President released a few days ago. Mm-hmm. Uh, the first question was you uh, know, like the um, what thing that the um, rejoined up. Thank you.

be mindful of anything else to consider? Oh, okay. Um, you are going to the next ya Thank you very much. Uh, you can do it. Kausman? I'm not doing somewhere. I don't know when you say that. I just thought, but ñu ngi doon jokku Mrs Ami Bojang Sissoho the ah, press secretary at the office of the president moom lañ doon waxtaanal noonu ci affaire press release bi she would not um, go any further with us to answer any further questions ba dafa mel ni ñu um, ngi go ahead like, ma what is going on because we nekk si defeen bi ñu ne nekkul ci anything ñu nekk ci buildings we are not hearing anything dégg nañ li nga xam ne moom la ami si soxo waxoon last week ak li nga xam ne moom la wax tey ci basaar waxtu ñoo jàmbu eh, Babukar Manka mu ne that voice is not clear paus. us um, xaaral ma wàññi waat ko rek waaw ma one more time mm-hmm. it's just a mm-hmm. few few few minutes Eva, two minutes rek ma wàññi waat ko ma play waat ko rek su ko Oh, okay. I'm going to call Gambian talent radio anyway we want to get some clarification, like uh, we have some questions for you. Si affaire région in the Binga Hamne, uh, Office of the President, we are currently days ago. Mm -hmm. uh, the first question you all don't like my um, what triggered the um, rejoinder. What? What? dégg nañ li nga xam ne moom la Ami Bojang wax si press release boobu I hope ne it was better this time around um, the audio was um, breaking earlier um, uh, naka dafa xaw a static uh, because we recorded it um, whilst um, ñu doon am show bi last week Yala, def nag mu dogoon ba yéen ñi ñu doon mun déglu bugg a déglu déglu but um, pour làppatoo ko itamit su fekkee ne déggu leen ko laaj naa Ami Bojang ne ko maa ngi laa collègue Gambian Talents Radio mu ne ndax aju requesting pour am ak man interview ndax dang ma record ndax live la ma ne ko yaa live actually mu ne ma ma ko press release boobu lañ doon laajte lan moo ko triga ak ndax office of the president la jógee mu ne ma liñ war a wax ci press release bi yëpp wax nañ ko ba pare mu ngi ci press release bi ma laajaat ko for the questions mu ne ma comme li ma tontu tey rek ne ma amul dara lum see wax lépp luñ war a wax ci press release bi rek wax nañ ko ba pare ci biir press release bi and we should go back to it uh, which means she took ownership ne ñoom ñoo bind press release bi it's coming from the office of the president unfortunately she wouldn't allow me to ask her further questions about the press release but mooy loolu Iba Sarr it's been a minute play nañ audio si Halifa yi am nañu couple of callers that dugga si and right now am um, dégg nañ lii bi ñu fàttali listeners yi ñoo follow rek ne the show is live képp ku bëgg a participate 678 608 3322 pour ñu nekk America 678 608 3322 ñu nekk Angleterre 161 818 7077 161 818 7077 ñu nekk Sweden 08559 26651 08559 26651 wala ngeen jokk ñu WhatsApp si four zero four five nine three six two one. 405 yéen a ngi déglu Gambian Talents Radio Iba Sarr ñu dugg ci analysis yi lan mooy sa teg ci li Halifa wax ak li nga xam ne moom la um, am ah, ah, ah, Amie Bojang wax tafadal Iba Wow, you stay nag din ma xala may time eh, gis nga dama am bunch of papers xalifa la xalifa si jam bi the ba paper upon papers I am pour su ko defee rek doo génne li nga xamante maanaam eh, teguwut a eh, course of conduct Come no mu ko waxee moom xalifa maa ngi ko jëkka dooree nag in the vidéo bi ci airport bi bém you. welcome bi everything Uh huh. go ahead Eva. I don't monitor no like. go ahead waaw ah, ok eh, foofu laa ko dooree man Pa Ousmane eh, problème bi yëpp ko indi mooy foog naa system change bi ku nekk lu moo wax yëpp because all those videos on YouTube Papa Ousmane soo demee system change system change ngay gis foofu sax ñu ñu ñu title ko eh, so mm-hmm. dafa mel ni que system change bi moom la ci gaay gën a pikoon foofu lay ñëwee rek Halifa wax na mu am nañ régime change waaye amañ system change foog naa loolu noonu bu mu nekkoon Manchester te play woon nga ko loolu la wax den eh, pour ñu work on it léegi man welcome welcome nam bi eh, ci airport bi tamit si ba tey si système change bi ci ñoom ñi nga xamante ni ñoo ngànka nguur bi ñoom ñëpp nag eh, baay bi la yoon xalifa moom moome te ku aya war sa moome gis nañ suma own analysis pa Ousmane li nga xam ne mooy health and safety soo ñu mënoon a tegal vidéo bi bu ko gaa yi dem welcome su ko defee ni ñi nañ ci mën a bàyyi xel papa Ousmane dama la ko ñaan rek bu mu doon jógee ko gaa yi di ko dem jëli moto yi nekk foofu Uh-huh. well, go ahead. Mange Pululu, go ahead waaw foofu noonu Paus man suma jàngat gis naa fa lack of health and safety ba tey si system change bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi koo oo te Halifa lu mu regime change am na waaye the system is not change ñan ñooy def system change bi mooy di Gambians ñan ñooy Gambians mooy ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo joxe suñu ay karta ñun ñoo leen fa teg ñoom in office eh, because dem na ba na ci ñoom eh, bu ko play mi ko rek vidéo bi dem na ci ñoom ba nga xamante ne mu ngi doon wax mu ngi naan driver bi na wàññi tànkaam tuuti am na xaw ma throw up si biir moto bi eh, so ba pare tamit nit ñaa ci kaw Ousmane health and safety anything can go wrong there driver baa speed up amul speed limit loolu yep. system change la di nga gis ñi ci kaw loolu yëpp tamit put into consideration for next time system change la wax and this time halifa mo ay eh, bu loolu wéyee tamit ñu dem everyone using the name ku nekk mu use the name of journalism these days eh, bala mu ma neex video bi nga nga nga pull ko Pa Ousmane ah, ma a la tuuti rek su ko defee vidéo bi eh, bu fekkee di nga ko mun a pull askan bi mun a gis li ma continuer maa ngi si ko am just continuer rek yow mhm. ah dama bañ rek comme lu kolo boobu waxoon la saane dafa compa fii compa fii compa bañ te luy ñëw rek na leer because comme lu ñu wax eh, there is no seat belt gis ngeen ki ci gannaaw lii su amoon accident dina métti te nit ñi dinañ ci ñàkk seen health and safety fii ah, fall na trop ba tax nag Halifa tamit mu ngi auto system change yi yëpp ci system change bi la bokka eh, ba tax nag yéen a ko gis noonu dem nañ tam ba egg ci bunti airport bi buñ doon dugg si foofu noonu tamit eh, bàyyi naa fa xel Pa Ousmane eh, ñëpp a ngi oote journalist these days ñëpp a bugg a nekk journalist sécurité bi stop nañ leen nga xam ne which is right loolu lañ war a def seen liggéey war nañ ko mun a def gis nga kii moo doon wax pour driver bi wàññi tànkaam fii laa doon waxee mu ngi koo wax den ñu ngi koo dégg si vidéo bi am na kuy throw dégg bu gaa yi ñëwee ba di dugal ci airport bi Pa Ousmane mooy fii ñu ngi ñëw dugal si sa airport bi sécurité yaa ngi def seen liggéey foofu noonu tamit li ma laajte mooy ndax Halifa Sallah bu mu doon ñëw ndax am nañ any letter gannaaw mbir mi dañ ko bugg a def mbiri letter dañ ko bugg a def mbir mi mu nekk ay professional standard te ku nekk xam na ne Halifa Sallah lépp lu moo oote daf ko teg ci yoon ak sarta ak ci luwaa ndax sécurité bi were informed. That security be si bopam. xamoon nañ ne Halifa mu ngi ñëw ak ñaata nit ñoo doon ñëw pour welcome Halifa because ñëw nañ si check point bi sécurité bi mu leen naawoon this is the security checkpoint. so ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy youth si ñoom ñi nga xam ne ñoom di supporters war na mun a xam di security checkpoints. points ba nga xamante ne suñ fa eggee am na yenn discipline yoo xamante codes yi moom la naan codes of conduct yi nga xam ne ñoom seen bopp war nañ koo am pour security yi seen liggéey mun a yomba ñu avoid confrontation between the civilians and ak ñi nga xam ne di uniform men eh, foofu noonu ba tey kooku noonu mu ko ne eh, man journalist la ana ID bi nga xam ko présent pour journalist nga loolu yëpp nit ñi tamit war nañ koo bàyyi xel sakk ñi nga xamante ay journalist lañ foofu nag maa ngi challenge media houses yëpp nag eh, pour ñuy jox nit ñi ID ba ñi nga they are registered ñi nga xam ne nañ ne ñoom registered media houses lañ ñu am ID jox ko seen ay staff su ko defee rek ñu abide with the laws because this is all system change tam ñu a yombal suñ tamit seen liggéey bu buñ leen ñàkkal fayda si seeni ay post nit nit ku nekk rek jox ko lu mu yelloo rek doo leen jotee te doo leen xuloo euh, bu ko defee ñu yombal liggéey bi waaye bu fekkoon tey sécurité bi ñëw na stop leen di saaj beneen coow mooy juddu waaye ñëw nañ eh, dañ ko politicize ne ko ñëw nañ ñoom ñoo saaj ñu dugal buñ ñu dugal Halifa fekk demewul noonu lu nekk rek nañ ko teg ci dëgg nañ ko teg ci yoon te nañ ko teg ci luwaa ba pare boobu tam maa ngi laaj security personnel bi ñi nga xam ne mooy security bi was he aware in writing ndax moom itamit informoon na personnel am bi ne leen eh, gars sami ne leen Halifa mu ngi ñëw supporters am yaa ngi ñëw media houses ñu ngi ñëw ñoom ñaata eh, security eh, head of security bi department bi waroon na moo xam ñaata journalist ñooy duga ak ñooy def coverage because maa ngi gis beneen police officer bi mu ne leen ne bu leen ñu live ñu ba tey waroon nañoo xam moom ki nga xam ne mooy security pour woon leen ne la these days uh, technology will grow rapidly but for everybody to use this live telephone coverage for mun koo joñ yi nga xam ne ñooy seeni ay naataango yu nekk si so dina prepare security yi pour wax leen ne leen um, live video nañ ko expect gis nga foofu la waaye security baa ngi to ne bu leen ñu video bu leen ñu live so boobu noonu ana consent bi nga xam ne moom jiital uh, uh, um, um, security bi waroon na koo joxe pour wone ko ba pare mu inform boy sami well. ah well mu waroon a inform well ahead pour uh, eh, balaa bés bi doon ñëw man Papa Ousmane loolu laa gis si bi beneen bi tamit eh, fu may tëjee ci boobu noonu welcoming bi mooy eh, xëy na boo fa àggee mooy gis nañ xalifa ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko am lii before what di gis nga fii la ko sécurité bi no live video mu ngi noonu no noonu loolu la ko doon no live coverage ñu gis xalifa nit yu ko teeru si bile yoon jéggi na dayo according to report buñ am nii ñu ne 86 vehicles ñi jegee nañ ba ñëw teeru si ko ba pare ñu gis façon teeru musut am euh, man foog naa ne loolu is a step euh, is a is a step forward euh, ba tax nag ci ñi nga xamante ne ñoo ñëw welcome waa PDOI supporters because nit ku nekk tamit sa effort dañ ko war a value Khalifa for over thirty years mu ci nekk ci politique arena bi musuta am lu mel ni wax ne yàlla nit ñi recognize ko woon ko nekk ko yow Halifa li nga woon ñun ñu ngi sa gannaaw tey ñu ngi sa gannaaw ëllëg ñu jël seen ay bagage jëli seen ay ndaw ëpp ñu dem jubali li nga xam ne mooy airport bi pour terrasser ko kon loolu du def dara du dafa yokk xale fa sawarte waaw góor du seddal xol waaye dina yokk sawarteer góor ba tax nag rek is very nice ba pare ma gis loo xam ne tam musuma ko woon a gis ci eh, political arena PDOIS maanaam tega sabar eh, kaf bi ree bi fox bi you know mu nice ñu organise ko yaa ngi gis foofu noonu tam am na ku leen doon wax ne tali bi mu coordinate ko nice na ngeen wàcc tali bi na ngeen try tam make life easy for our fa allocate buñ ekati di wax ne this is new gambia new gambia te Gambia, and gambians are using that word a lot new gambia new gambia a lot ñu Gambie ja ku ci nekk rek jox ko euh, euh, euh, waa Lampa Ousmane su boobaa doloon réeroo doloon doloon réeroo te doloon xuloo te doloon juumante man lii laa gisoon ba tax nag Halifa su seetaanee lii ñu ko welcome dina seddaxal ba pare nag lépp lu mu doon def dina ci yokka bu fekkoon ne benn la doon def dina yokka def ko ñette wala def ko ñeneen kon nag rafetu nañ ko whoever was behind this wala idea comme munte woon doon lii lañ soxla Halifa nit ñi jowee nañ ko ne ko political raaren si daf dee booren du neex duy am cas euh, duy am dara paa bi wax na ko fa mu ne xalifa euh, bu kee sa kodoo la bari ak kee maa koy anaa la xakidoo la euh, daf la dee dimbale ci li nga xam ne may ni nga ko kenn si ñoom wax na ko fi xalifa soo demee pour mu may la xaalis don't expect ne dina la may xaalis because that's not xalifa ñoom meluñ noonu ñoom waa PDOIS meluñ noonu te si kanam tuuti xalifa leeral na ko den pa Ousmane ñu move on rek gannaaw amuñ time beneen bi mooy xalifa bi kuona ama wajega nani anabidi wae za ujini watoende sana because li wax dafa realistic xam nga ñu ne nit naka lañ koo xamee what he or she does lim mm. what he or she says lim lim lim li wax ak what others mm. say about him or her li ñeneen ñi di wax these are three ways that you can know somebody what he or she does li boromam def what he or she says li boromam di wax ak ñeneen ñi di wax now looking at this video déglu sa maire yi dégg pay yi ñu gis different cultural group waaw ñuy waxtaan liiru lu ma kenn nettali my rookie days in Banjul from Farafenni ten o'clock si guddi maa ngi dem story ci saint Augustine's on Spalding Street si Johnson Hope Street alo alo yi you get diti hara sigi you have less than 20 people passers by bystanders ñoo xam ne romba taxaw 5 five ten minutes continue guess what was happening a doy rally at 10 p.m. at night unannounced ñëw rek taxaw ci mbedd mi téye seen PA system commencé di wax unlike what we saw yesterday with what APRC did wala what doy ci boppam def ci lii bi so yaa ngi wax noonu maa ngi ree not because of anything but because of li nga xam dama ko dunda dama ko gis that used to be the order of the day with doy with doy's politics serious. Very dull. Don't read it. And Khalifa was talking at this rally, breaking down the last butut and how the governments ended. Guess what, though? He was speaking in Wolof. He was saying the language that everybody almost understands. We're talking about Banjul, ci Johnson Hope Street ak Street. ñu jógee Banjul nañ ko xam. olof di wax olof yu set wecc di wax ci mbéy mi di wax ci nji njiyal gi ak ñooñu he was speaking like olof boo xam ne man faana faana booy bi I could relate to what he was saying but guess what some people will stand for few minutes and leave so suñ toogee ba gis Halifa sala. di def errali nii wala di jógee bitim réew tukki ñu gis fa sabar si gis fa gumbe gi guess what um um um Kanyalangi. Guess um, what um um um Kabakel. It shows a transformation of the Doi party because this didn't used to be part of what they did. This didn't used to be part of what they believed. It didn't used to be part of how they acted. Kon, li dafa nekk loo a change in the Doi am political arena boo xam ne gis nañ ko second thing you said which is true too the numbers comme ni ma ko waxee duñu daan am numbers now what triggers the numbers is it gumbe In the indi ak pomeeg yooyu parce que nit ñi doon and if ma joxe this disclaimer by the way I had people contacting me um, uh, uh, uh, ne lu naka because defal naa doy that audio defaral naa commercial I was paid to do that commercial. By the way, I was paid to do a commercial for Doi. am not ku ma call ne ma waaye yéen daal mënuma understand Gambien si yéen da ngeen bugg a dunda politics for how long ngeen a dunda politics Maybe just have um, uh, uh, change of government man bugguma nekk opposition all my life man and I told the doy members ñi ma contact and when it comes to Gambian talents, it's a completely independent platform and we do our analysis without taking sides, fear or favor of anybody. Now, Wadoy, definitely in bill. We covered the return of Khalifa and the press conference. ñiy wax loolu xanaa APRC rally bi nga xam cover nañ ko GDC bi Mama Kandeh di dellu si waat jógee bitim réew we cover that equally mm-hmm. so xanaa ñu ñu nekkuñ di bàyyi xel if UDP has anything we will equally do the same thing so we are an independent platform and media house by the way that will work with any and all of the political parties ak ñi nga xam uh, ne ñoo nekk ci Gambia without fear or favor without taking sides of anybody our role is to report what is happening in our country, just like what we did contacting Amiboja. Now, that said about the return of Khalifa, Ivalinga was t-shirt all the political, this is modern Gambian politics. And Doi has to learn to accept this reality, by the way, if they want to move ahead. So go gaay defute, dañoo nax send bopp, a lot, duñ dem fenn. Gambia lu dem waaye Doi du dem fenn. Gambia du dem why don't we do them well unless and until they are willing to accept this reality like you said that is what we need to curb out of the people's mentalities, by the way. Even you raised some very important um, points about um, um, um, um, um, the health and safety concerns of, of, of, of the people. Honestly, watching the videos, I used to be a part of um, um, ambiance yi bugga ko interschool Saint Augustine dañoo feesal suñuy moto eeg ci kaw lii su Gambia daan play versus any country stadium bi dañoo dem feesal fa moto yi suñoo eeg this is what used to happen I see vulnerable women young women young girls see kids joining this thing moto baa ngee daw ñuy daw pour eeg ci kaw moto yi it's a very important point that you raised what has the leadership done about these things? What is the country doing about these things? Now, that is where the government comes in again. That's where the government comes in again. It doesn't matter whether Doyla, whether UDP, whether PPP, whether NRP, whether um, um, GNC, um, um, uh, uh, uh, uh, Mama Kande, whatever it is, we need to be able to set standards for convoys because this is not only seen on Khalifa's platform, but on all platforms. They need to be able to set standards. I'm certain things you have not allowed. Either overloading our vehicles, um, be it the ferry, be it the boats, ak whatsoever xanaa airplane si rek nañ overload because loolu suñ in the yeneen dëkka yeneen dëkka yi duñ ko allow Why should mënoon not bot board laws sax xej xej plane What are they a but please, even you allow because that's international standard. But locally, if a paper force them swing motor then you overload. Unless you don't board um uh, uh, uh, public transport. But these are some of the changes you can go am. What you am laws in place because it jeopardizes the um um um um, um the safety of the people. Motor overload ko. Yangi put everybody in that vehicle at risk. Ferry being overload ko. Yangi put everybody's life at risk to kon lii lañ war a waxtaan ak askan bi what we have been preaching for ages Eva um, on this show which is civic education civic education civic education waxtaan ak askan wi xamal askan wi fàttali askan wi li nga xam ne moom lañ war a def when it comes to niñ war acte um, no. lu am solo la Ivasan pour ñu jéem see taxaw civic education is very important that we need to be able to prioritize government di said, lan la ñoo mën a def pour put laws in place pour put regulations in place pour put policies in place yoo xam ne dina tax am overloading vehicles du am eeg si kaw moto yi du am in as much as we want to do it we want to show the ambiance and stuff but eeg si kaw moto yi noonu is not okay is not safe kenn mun naa jëngatu nii rek excited rek we used to talk about these things, Yaya, everything. So, Fekene, we want to move ahead. These are some of the things you have to by And it doesn't matter what party does it, it doesn't matter who does it, it doesn't matter what convoy it is. We need to be able to allow these things to change. Sitekari. And Lulu, I think it's very important that we pay attention to it. If New Hoski, press conference Khalifa Salabi, what's your take on it? Hamna Khalifa. no si sa toolu bi sa rek ñu ñi nga xam ne ñu ñoo déglu na war a mun a comments ñoom itamit du ñàkk dinañ ci mun a caraxlu wala ñaar euh, Pa mhm. Ousmane loolu moo nekkoon suma teg loo xamante ne woo moo nekkoon Halifa's welcoming back home bi nga xam ne welcome nañ ko moom Halifa ñu ko challenge system change la wax all this change na ko seetaan naam gisut ko mu ngi woon ci biir airport mu ngi ci fly bi waaye tamit du ñàkk vidéo bi na toog mu seetaan ko next time ñoom ñi nga xamante ne maanaam ñoom ñooy di youth mobilisers nañ mobilise youth si eh, health and safety issue te Gambie nag dañ am problème health and safety di nga leen health and safety pa Ousmane nit ñi ñooy dëgër ngaam ba nga xam ne da nga garaawut yi ak yi xoolal rek accident yi si day am. waaw moom laa wax Pa am na yéenay moom laa la wax ni da nga war a firm Halifa wax na ko si biir speech bi be firm youth youth mobilizers is their job. nekkul ne mbir mi yëpp dañ ko war a jël en xalifa moo tax ñu délégué job si ñoom nañ def seen liggéey Pa Ousmane ñoom tamit ku nga xamante ne ñëw nga woon nañ la moto bi ñaata nit su dee la moo jël su feesee fees na ci kaw ku fa eeg ñu wàccee la Euh, you know doo am room pour dem nañ door di di di apply this wax wax wax wax di ko sootal te Afrique nekk na ñoo xamante ni bëgg nañ wax torop waaye ñun yu lii nag maa ngi ko challenge ñi nga xam ne ñooy youth mobilisation Halifa lii de la mu ngi ci bu moo ñëw yëgu tiinul yéen mi organise vans yi yéen mi organise sabar yi yéen mi organise yi it's a step forward is a step forward because politique bi Halifa comme ni ko papa Ousmane waxoon dool na man seen school laa jàngee man doy laa jàngee eh, doy nii lañ daan def yaay yi ñëw jël si seen doom ñu bëgg a faa nekk politique dañ leen daan romba seen political arena daf daan mun a boring ba nga xam ne man mun naa wane ñun xalifa suñu kër ñu benn nit rek ma daan votal kenn du fa daan votal because of ne seen political arena dafa boring noonu so ba ñoom sax dañ ko daan wax xale yu bari óolu ngeen leen pour ñun ñu leen waaye seen i carte xañ ngeen ñu ko lu tax nag dafa war a ambiance waaye tam ambiance ne seeni jox seen cër jox leen seeni respect ku ci nekk lu nga def joxal nit ki lu mu yelloo jox ko respect am su ko defee dinañ mun a dem comme ñun ñu nekk ci west bi ñi nga xam ne jox nañu suñu gëdda jox ñu suñu respect ñu jox ñu suñu axa ak yelleefi doomi aadama te fekk loolu noonu génnul Gambia the system will never be changed eh, ñu move on ah time amul Halifa Spijam bi Pa Ousmane foofu tamit am na point yoo xam ne nóot naa ko wa dafa lu ma la bëgg laaj bala ñoo dem GRTS cover nañ event bi or not I am not sure. Gisuma because Gisuma fa, Gisuma fa, Gisuma fa malala. Well, Gisuma sen might flag be anywhere, either um, mm -hmm. or any of their reporters to see in that covenant or not. I am not sure if they were equally invited or if they were aware of it and the like. But then Gisuma dolo and I cannot verify it. And I have not seen it on the news either um, uh, for that day or the next day. So, um, uh, uh, dolo. Um, but then you move on rek Eva, to the press conference démba GRTS dinañ fa ñëw bi ko mention na ko gisuñu leen fa ñu dem fa last week am na ko doon wax ba may la Halifa ñëwam bi xëy na nekku ñun ñëpp ñoo nekk xarit ak ñoom waaye it's a state television ndax waa PDOIS members si right nañ dem a letter or not loolu tam another investigation na another question na pour ñu follow bu fekkee ne right nañ leen comme lu Halifa was speech am la nepotism and favoritism is not accepted underline it yéen ñi nga xam ne ñuy déglu comme kolo boobu nu mu underline te woon kooku wootam is not acceptable te si kanam tuuti dinaa leeralal kooku nga xam ne mooy directeur of GRTS ngankoon na Fatou Sow ne leen duñ ay journaliste waaye nag dinaa ko fàttalil moom itamit gannaaw BBC la doon liggéey ma am yu ma ko fàttalil jërëjëf Bojang Sankaranka keroog bu ma bañoon dem jàng media bi ma ne la ku nekkaa nge nganka téléphone am di ko def nga ne ma ne bés dina ñëw sa xam-xam bu doolee rek doomu na compete ak dibéet bi du neex lii laa nekkete ñu ne nag mag dina tollu gis bu sori yow di nga éeg te doo gis lii nga gisoon sant yàlla boo ma jàngalee ne ma dellu school ba tax na moo tax tey ma mun a challenge ji ji pour war ko mun a wax yi nga xam ne man ko ñu wax ak moom ci kanam yow jërëjëf Bojang Sankarang ah, Pa Ousman ñu den ah, ah, gis li nga xam ne maanaam mooy meeting bi fu ko defee soo ma mënee indil vidéo bi rek dina ma neex tuuti rek Diouf maa ngi laa jégalu mooy bi nga play woon bu yàggul nga defal ma ko mute moy mhm. video Khalifa Sallah bi bu def press eh, eh, conference bi hall mhm. bi dafa ndaw xool bu ko Khalifa Sallah defé ci suma gis-gis eh, dafa mhm. ndaw Pa Ousmane ba tay ci àq ak fi doomi adama la ñoo ñëw nga xamantene lolu bok na ci li tax ñu ya ya jame ñaaka joxe ak fi doomi adama hall bi dafa ndaw yeen ñi nga xamantene yeena ngay a te yeena ko amé won programme bi o oh, everything yeen mi nekkoon si ko don organize planning bi ak euh di planning bi ak organization bi Pa Ousmane poor planning. Mm-hmm. It wasn't well composed. It wasn't mm-hmm. well. It, poor planning. poor poor poor poor planning eh, loolu laa luma eh, lu ma min ci poor planning ci kanam tuuti dinaa leen ko woon nit ñaa jabante too much Journalists yema ma wax ni tamit they didn't prepare themselves at all Nige interrupt Halifa Sallah dem nasi be amna am hamne ñoo xam pause na fa eh, one second the bàyyi xel kooku movement bu def ba private, ba tey amut security ana ndawi PDOIS we need to start organizing our our our our our our our press conferences amut security li maa security mooy Halifa du nit ku ndaw waruñ di ko bàyyi dañ ko war secure Ken mu kenn mënoon na moo jógee ñëw sol beneen bu ba ñëw try pour interrupt this this gathering you know xoolal journalist cannot prepare ku nekkaa ngee ñëw teg Bala Halifa di dugg si building bi journalists should be prepared ñëpp dañ war a prepared media houses yep, dañ war a prepared ba pare coordinator bi event coordinator bi fii dafa war a allocate place boo xam ne journalist yi rek ñoo fa war a nekk ñoo xam ne vidéo ñoo xam ne netal netaal ku nekk soo ñëwee dañ la war laaj lan moo la fi indi dangaa ñëw pour laaj question déedéet amee photographer ame ame damaa film nga taxawee aside all ni film dañoo taxawee aside ku nekk nag sax xayit num ñëwee noonu ngay ñëwee pour nga mun a am li la fi indi xoolal niñ jaabante bi noise bi it wasn't well planned dafa bari noise mënuñoo déglu ba pare beneen bi nga xamante ni lat nañu down mooy di sound microphone bi switch nañ ko ñaari yoon pour Halifa mu ngi interrupt di press conference am lu moo wax mu ngi wax with the people GRTS lii moo nekkoon seen pour ngeen dem fa waaw ci kanam dinaa ñu wax ko yéen a gis journaliste yi organizing at all Gambians we are not organized eh, at all Li west bi ñu ngi ko seetaan lu tax west bi ñu ngi ko seetaan Pa Ousman because am na journalist yoo xam ne comme lu Halifa wax la dégg naa mention for three ITV ITV fii is after BBC next is ITV yes it's not it's not nekkul télévision bu ndaw bu si dee lu ma la ITV da i am Gambia a media house bu tuddee boppam ITV or not Why ITV I have been referring to iAfrica Africa TV I guess iAfrica Africa TV Wow! imagine lii soon media house the Pa Usman fii ñun lay blame we have to organize ourselves. noise everybody, bari a ba mobile phones was just ringing in out in and out journalists send mobile phones Young don't nekk di make so many noise You young media be put your phone off bi nga xam ne or put it on mute or silence. Because ko def vibrates, because sax because affect caméra work a poor sound so soo amee def fi No, i eh, am a poor sound doo ko mun a dégg looy seetaan te amul sound du neex Halifa wax bu moo wax wax am solo la bala nga xam sound was poor Boom, bu a ñëwee ci kàllaama I'm going to be sitting sax and na waaye the moment mu ngi gën a man mm-hmm. eh, eh, même sound before bi foofu noonu poor sound and it was a cheap labor kuleen mm. liggéeyal daf leen na xaw ma fay nañ ko xaw ma fayuñ ko waaye next time nañ put this moo tax gis nga everything su passé rek nii la ñëw indee paper ak pen nga read nga xool mistake yi ngeen def next time buñ ko apply Halifa meeting am si fu mu nekk nii yéen ñi nga xam ne yéen a set up only please eh, it's very important pour microphone am bi mu nekk intact pour microphone am bi askan bi lépp lu moo wax because nit ñi mënuñ woon a déglu place bi tàng na gis gis Halifa nu moo ñaxee ana fan Africa is very hot very very hot media houses yi prepare you seen bopp Halifa speech Do they easy to do dee yomba Do they easy to do dee yomba And that prepare ngeen seen people that new ñu yóbbuwaale ndox lekka san eh, eh, take away or whatever because dafa yàgga yaga. bi Africa nag yi yëpp bokk na ci lu tax Gambia du dem and li yëpp bokk na ci lu ñu yel for system change Halifa wax na ko in everything you do jëlal ñi nga xam ne seeni xam-xam nacc na ci pour ñu war a direct ñi nii si li ñu def waaye do expecté ma Samba ma Demba ngeen ko demal koval ma Halifa without knowing ne dafa am lu leen war especially the media houses I have a lot of blame to put on them because it wasn't again I look at Philly health and safety again Li you will never see it in any media house in the UK te man suma rôle fii la nekk Li even the studio boo xamante ne collège la au university ñu la koo jàngal sa du accept li so fii a eh, planning needs to be put in place lii nit mun na moo strip over mu daanu accidentally so dañ war a organise suñ bopp as a media house first ba pare maa ngi challenge how ma kan the di press director pour moom tamit su ko defee yi bala ñoo xapp nu war a mun a enlighten nit ñi yi send leen on seminars pour ñu war a dem point out yi nga xamante ne mu ngi fàggaagal suñu métier mi média bi Pa Ousman euh, bu loolu jógee euh, mooy people attitudes jóg jaabante in and out african bi daal xaw ma luy seen problème euh, bu loolu jógee tam mooy loolu journalist we are not prepared ah, you know they not prepared. In the everything wax nañ la ne ëllëg yow yaay dem koo baxali get yourself prepared teel a them. Tell teel a ah, àgg nañ am liste eh, eh, eh, Pa Usman from Gambian Talents yes yow da ngaa taxawee nii Iva Sarr ITV or whatever or BBC or whatever or Sénégal ñëwal taxawee nii nañ organise suñ boppa you know bu jógee Pa Usman, mooy noise bi euh, no silence was observed ñëpp a chok cok ci coki mobile phones si you know especially mobile phones indi na a lot of uh, distraction Pa Usman. you know euh, kenn bugg ñoo may mayante chance ku nekk a ngi bugg wax Pa Usman? lii laa jot a jëlangum ci li nga xamante ne observe naa ko fii just before Halifa di start euh, ma bàyyi la bu fekkee am anything loo ci bugg a nga yokk ko ci Halifa mu ngi nii ndox sax tegaluñ ko ko ci table bi ana di event coordinator ana di youths of PDO OIS prepare him Halifa wax na bam ñaxa te wax baat dafa wow mu war a mun a naan ndox bu ñu wax ne Halifa dafa simple am na yéen ay it's not Halifa's role yéen mi nekk foofu noonu seen due responsibility la moo tax mu delegate job si please nañ leen dee taxawu ci bunta yi nga xam ne ñun ñoo ko war a def liggéey ko balaa suñ jiitu ñuy egga ci ko Papa Ousmane jërëjëf Eva kàddu gi rafet na bu baax a baax a baax ah, great analysis there once again about um, some of the ethics, some of the professionalism that was lagging See, even being a xam momla guy, la gars yi doon no. and these things ci man opinion don't only go to Khalifa or Doi. Mm -hmm. The safety concern you raise runs across the board to all parties and all functions yi nga xam ne dafa xew Gambia wires all over the place telephones beeping and going off like not even beeping, ringing. That was So Soccer player It's ringing. It's not beeping. It's but ringing. When we are going off, the phones are going off, and, and, and, and, the like. Some of those concerns are very important. Professionalism is very important in everything we do. Now, coming to Khalifa's speech the issue that he raised the government did dañ ko tontu and are not taking responsibility I happen to do some research juma to break jump to conclusion or come up with analysis. I had the opportunity to listen to Sayo Barros' piece, the news report that he did. If my memory serves me well, even on Star FM, where he read certain things and talked about the achievements of the government and stuff, where he even challenged Khalifa Saf as somebody that never said anything positive about this government since its inception. Tajo went further and talked about a lot of things, some of which I did not actually even see on the press release. Why he did a great job in highlighting Linga nga xam la government bi def last week i am the opportunity or I'm amuñ the opportunity to say this it is very good for the government to highlight its or their achievements and accomplishments. So Malajido, I have an issue with them having to respond to Khalifa Salah. Put highlight Nyom accomplishments. I don't think that should be as a result of responding to Khalifa Salah any government be it the government of Sir Jawara be it the government of Jaya Jammeh be it the government of Adama Baro, and any future government then go all Gambians to get back to them and feed them with information as to what is happening and what is going on. That is just the bottom line. Any government dating back to the days of Sadauda Jawara, coming to um, Adama Barrow or any future government after him. They owe it to the Gambian public to occasionally brief them, to occasionally talk to them through any and all means that they can utilize to reach the public. Oftentimes, from what we see, Taimi Jawara amuñ woon télévision fa Yaya Jammeh indi ko Aki moo ko monopolize ko the new government conveys a lot of their message through the GRTS. Lately, and I'm saying this because Damachi Hamdara, we have no reason to go after the government. And it is all of our responsibilities to support President Barrow to make sure he succeeds. The new door is at time impassable. They often send us messages. They often kept us updated. They often fed us with what was going on through the Gambian Talents email. Through the Gambian Talents email regular basis. But lately, we don't see any of that. We don't see any of that lately, which is sad and unfortunate. Nay, we are not seeing any more correspondence coming from the office of the president. Every correspondence that they have, they are doing and submitting through GRTS alone. Is this the right thing to do? I will say no. They need to be able to utilize and use every mechanism that they have, every um, uh, uh, opportunity that they have to educate Gambians, to inform Gambians about the progress that they are making. Liñ highlight fofu yep lu am highlight fofu lo xamne lu nekk achievements yo xamne la nguur gi ko yes. Yes loo xam la nguur gi def nañ ko yes and Eva, lima ma wax ci gannaaw rek olof njaay ne werante semi ngemba I will pull this message that came as you can see Adama Baro. the coalition media is right here Adama Baro media team at gmail.com gis nga this correspondence was sent to the Point newspaper. It was sent to Standard newspaper. It was sent to all these Gainako newspaper. It was sent to everybody, which included the pictures from the office of the president and what the president was doing. As you can see, this came from them. This came from them, Gisla, to Adam Barrow Coalition Media. This is not something I'm creating. It's right here. You can see all the different attachments. Everything that was going on with the presidency, they were feeding all media houses with this thing. They were inviting all media houses. As you can see, even Foroya is mentioned on this Ivazar. I'm not just making up anything versus what is happening now. A lot of things, I mean, definitely a press conference. I mean, when did the press conference happen? Mm-hmm. We took that press release from different places. This is right here, as you can see. Even foreign newspaper was invited to this. As you can see, all online newspapers were included. Chile is right here, right here. So this is just one of those messages, Yohamne. It came from the presidency at the time. At the time, ci li nga xam ne ñu ngi ko doon def ci nga feed with stuff bugg a them participate. So participate mean anything the um, journalists were often contacted unfold and informed about linga nga xam ne go on si presidency bi si presidency bi si presidency bi this was in April laa la after they took over waxuma laa nag time yi um, uh, uh, uh, January February March and the like they were fully functional and operational in April. President Barrow was already sworn in and things were going. A couple of months into the presidency, they were doing that. But after that, a lot of things were being cut and we will continue to do this, you know. We'll continue to do this. To have access to the office of the president, lately, they came up with, I mean, um, um, um, some, some things. You have to apply for it. The information department through um, um, um, uh, uh, uh, um, Aisha Davis and apply. You contact Ami Bojang, mu to Aisha, nga Aisha. Of course, Ami Bojang has to appro- um, um, uh, approve it at the end of the day. I'm saying this because I contacted them. So wanted them. every government owes it to their citizen to talk to them. If anything, Khalifa said uh, uh, uh, uh, um, in some of his deliberations that I had, which a lot of people, including President Barossi Bopam, Deganamu previously, when Gambia has changed and changed for good. Gambia has changed and changed for good. Gambians are no longer sleeping. Things that were accepted and admitted and compromised for President Dora, for President Yaya Jammeh, are not going to be compromised for President Barrow or any other future Gambian president, and that is something that needs to be understood. Now, for the fact that Halifa Salah, I mean, um, uh, uh, guy, what um, uh, the few things that he said, Against the bigger. What is not right is not right. And this can be argued. I seriously believe in the system change that Halifa Saleh is advocating for and preaching. Just because other press conferences were not um, um, um, um, signed before doesn't mean this one shouldn't be signed. I think we need to do business different than we used to do it during Yahya Jammeh's days. These are the things which are Gambian them. Somebody should be held accountable and responsible for something. If anything, from talking to Ami Bojan, that's confirmation the presidency um, uh, wrote the, the, the, the, press conference. That's confirmation but it should be signed. Somebody's autograph should be there. Instead, it has Ami Bojan as, as, as the contract person. It should be signed and dated from talking to Ami Bojan, from everything that we've heard, is definitely confirmed. Eh? It is from the office of the president. Khalifa Salah has a responsibility, and every citizen for that matter has a responsibility to follow due diligence. Linyowa following due diligence, that's where it comes in. Maybe we don't understand it, maybe we don't know it, but that's where it comes in, which is to confirm. doo dégg lu nekk confirm moo tax am pour am am am am am am am uh, uh, uh, Ami to get her reaction and what she is going to do moo tax contact ak Fabakary Tombong Jatta moo tax ñu def every effort to reach out to Halifa Sala. now def na press conference wax na li moo wax si press conference bi which we had access to if talking to Ami Bojang what she said they didn't say anything about okay um um uh, uh, uh, lii moo trigger am um, lii moo tax ñu def lii wax nañ ne Halifa Sala, def na London mu joxe foofu statement tali suñu dara le seen I have questions You have ne pour askan bi la we report and the people decide you talk Khalifa talk keneen ak keneen we decide let the people decide now the system change that Khalifa is claiming or arguing you said it Eva I mean, a lot of things that are going on that need to be fixed internally Not a lot. Oh. in Doi oh, in Doi I say this a lot of time ne we need to start the change from within ourselves we need to start the change Come ni ma ko waxee bi ma interviews with GRTS and other places the new Gambia the new you the new me New change in boppa change in jikko yi raxas suñ xol yi jàngal suñ xale yi starté dem si school xale yi màggat lii mu continuer this generation ñu commencé ko si kër gi jëkkër yi waxtaan ak jabar yi ñu jàngalante yobu ko ci liggéeykaay yi mu continuer ñu yóbbu ko ci bedda bi mu continuer ñu yobu ko ci baye bi mu continuer ñu yóbbu ko ci daata gi ak ci kabiloo gi yóbbu ko ci penca bi mu continuer ñu yobu ko everywhere foo xam ne fale ñoo tesee It has to start from the grassroots. It has to start from the homes. It has to start from the parties. It has to start from the schools. It has to start from the grassroots level of the community organizations and the like. Poor mu trickle down, and am the trickle down effect know them ba all the way to government di nga gis ne suñu àggee ci nguur gi rek nañ def these trainings I'm with yi it doesn't matter I'm koy waxee su fekkoon ne Angel to be ñu indiloon mu nekk suñ président sax Ibasar. am wala Yesu Christ wala sallallahu alayhi wa sallam tamit Jesus Christ eh, am yonent yàlla Isa wala am am am am eh, eh, sallallahu alayhi wa sallam sax Iba Sarr Gambia demuñ fenn demuñ fenn dinañ saxaar rek waaye duñ tàkka fee change suñu attitude It doesn't matter who becomes our president. It will be hard for us to make any progress as long as we are still at these levels, as long as we still have these beliefs and mentalities. It's not all about the president. President Adama Barrow alone cannot do it and do it all, Ivasar. Who can do it is us, ñi nga ne ñoo ko am na lu bari loo ne it gets to the presidency and it never does. bi am na ne ne probably that probably never came from him. People just use their instincts and acted on it the same thing as président Adama Barrow am not yu buddy. What naa the last time i am not sure. ma doon very soon président Barrow will start to fire people So, ko defee ñu ne I'm saying this not because dama ko indi but people will do things that would end up undermining and sabotaging his government that relates to the Gambia being seen right now and helped by international organizations yu ñoo babysit yu ñoo Very, very, very. bari bari Then i am standards that they expect us to meet if anybody in the government ends up undermining his government to do anything loo xam dafa tax moom he will be seen as a bad leader in the international organization in the international world and stuff he will not sacrifice loolu noonu dina la sacrifice yow dina la discipline for those things and then those people will start to say dafa betray and they will come out and start saying things Yo, xam ne li xew ci Yaya Jammeh will happen so therefore, we need to correct the systems. We need to put systems in place everywhere in America. You see what happened last week. You need to have build people. We need to build institutions instead of building people. From the court systems to the everywhere else we need to be able to have systems. I'm not some places, if one person is not there, nothing functions. That is something that we need to change. It runs across in everything that we do. For the most part, we have one or two or few people in your family. Without them, nothing functions, and we need to change those things. Until and unless we do, dinañ saxaar so from what Halifa Sallah is saying ne dina the office of the ombudsman he is following protocol Fini to actually get facts and get the problem fixed from Mondays. Little trainings that I have in America, the EBAS are from the madam. I am trained to I need try to solve it instead of you going to the highest level of trying to fix the problem try to fix it with the person concerned, with the person involved. Ngeen waxtaan, ngeen d'accord, ngeen come to a terms with the, whatever it is that was done. Su ngeen waxtaanee di ngeen juboo. But what do we always resort to? Going after the public. What do we always resort to? Jumping to the last resort when we should be able to start with the grassroots level of taking care of our problems, of solving our problems. From him saying, Chishuma gis gis them ombudsman, I mean, to see if they will be able to fix anything. Because limwa, if the government had come out and quoted sections of the constitution which I think is what needed to be done. Sections of the constitution, section nangam of the constitution, subsection nangam, dafa wax ne public officer li ak li ak li li. So public Khalifa, officer Khalifa sala then na wax li ak li ak li ak li. na nangam ak nangam ak nangam. Then it can be understood. But that is not done. Secondly, why Khalifa? I'm saying this because Fabakari Tombongiata just last week on the Fatu show when he was up there. He accused this government of even killing people. He accused this government of witch hunting. Barki Dembalen Mujegis, um, um, you will see Yankuba Koli calling the Commission of Inquiry witch hunt that they are after APRC victims. They are after APRC. The government didn't respond to that. had Mama Kande threatening to sue them and all the things that he said, allegations that he made against them. We did not hear a press conference, an official press conference coming from the office of the presidency. We didn't. We didn't. A press release or press conference or something official that comes from the presidency that is responding to these people. But they responded to Khalifa Salah. Mm -hmm. Why is that so? This is just my analysis. Looking at the situation, all of us are there for Gambia. All of us mean well for Gambia. Our approaches to things might be different, but this is the bottom line, though. Why respond to Khalifas? Why respond to Khalifas? Mama Kande Tukina, a lot of things. The same thing, APRC, We've been hearing them making all kinds of allegations lately. Better when you call for Fabakari Tombon for questioning. But at the end of the day, no official statement came from the office of the president. And those allegations, in my view, Chibopam, Mogenare. Mogenare <coughs> lu Khalifa wax. Regime change, system change. I <laughs> think we need to be out of denial. We are in denial about a lot of things. All of the di wax nag ku yar sa kuy balaa daan kenn daan la suñ si loolu la ñoo mujjee that's the same way that Yaya Jammeh was mystified seen as a hero that he didn't do anything wrong from the Khalifa wax am am am press conference bi including the fact ne moto yi ñoo joxe Even as we speak, we have contacted nothing less than 15 National Assembly members, some of whom were always very keen to actually come on this platform to talk about these issues. I remember when we talked about the issue of utility vehicles going to um, um, um, um, the national um, uh, uh, uh, used by family members of government officials including um, uh, Domi Vice President Madam Fatma Tambajang, including um, um, um, uh, uh, Domi Lawyer Dawi. When we said this, we had a forum. Forum Bobo is right there. You can see Mohamed Ndao, um, um, um, um, uh, National Assembly member for Banjul, Dianko Gizmungi he was always available. But guess what? When contacted for this particular one, just because they are benefiting from the people, you get out. I have been trying to have my team on the ground to interview the National Assembly members for about this vehicle issue. KKP of the UDP is willing to actually talk about it. Usman Silla of Doi is willing to talk about it. These are the only two people who are willing. Banjul and These are the only two people who are willing, and we've contacted over 15 National Assembly members. They are all running away from talking about this utility people issue. Plenty times. Why? Because they get the vehicles, because that's what they were advocating for. So they grow Mohammed Daw ci interview boobu mu ngi kaas and the like he was eager and concerned on that forum moom a journalist ak Momodou Sabali forum but at the end of the day they are running away from commenting on these things honestly war nañoo am um, an official language soo déggee commission bi gis na these are things that people need to learn from suñ déggee commission of inquiry bi Eva Sarr ma teg ko foofu noonu rek Yahya Jammeh directives yi ñu daan joxe verbal directives verbal directives képp koo déglu si commission bi ñu bari ñu ngi wax loolu the most used words in the commission of inquiry mooy directives directives from the president directives from the president verbal directives ñëpp loolu lañ nekk di wax from ñi liggéey ak moom office am to waa port to waa am am am social security to waa KGI every single person you talk to will tell you ne la ay verbal directives rek lañ dégg gis nga jamono jooju dafa war a passé dafa war a passé a president just comes and gives directives, president just comes and verbalize, office of the president just comes and verbalize, ne jox guy moto. Moto yi mean uh, um, official responsibilities. Dañ war um, official right of yoo That is what we call a system even. That way there will be paper trail if somebody leaves. Right now problems in your am The commission bi yëpp waruñ ko i am super fekkoon things were written down and handled the proper way. There were documents to actually prove these things but a lot of things there are no documents te moo tax time nga dem transparent ñu mën a document nga waaw ñu jox la two days nga dem lijjanti kayit yooyu ñëwaat the next time nga ñëw nga am document boo xam ne danga ko war a dem lijjanti standard chartered ñu wax la standard chartered nga dem lijjanti loolu the next minute nga ñëwaat am kayit boo xam ne danga ko war a finance nga dem ministry of finance pour lijjanti ko you have people appearing about one issue you have the same person appearing Eva I mean ten times twenty times about one issue boo xam dafa need clarification simply because there are no documentation no documentation to prove these things government lañ nekk di wax you don't run a government like you run a home ku nekk sa kër suma kër sa kër ak keneen ak keneen dangaa taxaw sa biir kër joxe directives moo happen lii mooy xew mu xew loolu nag government warta demee noonu especially modern government if we are talking about moving ahead if we are talking about moving forward Gambia dañ war a am systems in place and one of those systems is actually writing and I think in my opinion in my view though it might mean otherwise but we should be able to have the government the presidency write to these people to fekkee ne we are talking uh, we are not even talking about the source of the vehicles anymore So fekkee Lola, loolu la ok question the source of the vehicle keneen def ko warta tax ñu def ko mu happen before don't make it right I've listened to, for example, lawyer that will talk about this on the Fatu, um, Ker Fatu show. Mu ngee wax loolu ne vehicles yi njëkk na ñoo joxe neen Adama Barrow joxe woon na vehicles am um, am um, si time campaign bi to coalition 2016 those vehicles were not collections why should this one be collection ni ma ko yàgg a waxee rek su ma tontu tuur dat mooy su àdduna yëpp doon def lu baax du musa tax lu baax nekk lu bon su àdduna yëpp doon def lu bon du musa tax bon nekk lu baax Fabakary Tombong Jatta wax na ko ci am um, ci Ker Fatu interview bi moom tamit ne um, uh, uh, uh, the current government and people um, supporting the current government are always quick to tell them whenever there is something, then going you disturb telephone and coffee. Well, you guys did worse. And he is very right, though. Let them doing it don't make it right for the new government to do it. No, it's just a fact. It's just a fact. Don't do it. Don't make it right for the new government to do it. Let's have systems in place. Let the presidency write to the um, cabinet, um, to the to the parliamentarians. Tell them these vehicles are given to you by the office of the president. If they are official vehicles, they need to know. If they are living roundabout, whoever is there, eh, the vehicle doesn't belong to you as Mohammed Dao, as KKB, or anybody else. At the end of the day, it belongs to whoever is the National Assembly member for that constituency. So they may be again, I and you vote out, then far by the next person coming in will take over that vehicle. Fair enough, it's good. But these things need to be in writing. There should be official um, correspondence from the office of the president. To the new ko joxe su fekkee président be more ko directly there should be something in writing that can hold somebody accountable in case something is to happen instead of these verbal directives The Lulu dañ ko graduate from and that is where the system change comes in. The government has done a lot like they said on a lot of things that they argue they have done a lot and continue to do a lot of things but then these are things you have. it needs to be improved press release accomplishments and it's a step in the right direction. And kudos to the government. My thing with that is it shouldn't have waited for Khalifa Salah to actually say what he said for those things to be published. They could have been published earlier when nobody said anything. The Ghamne is just to educate the people, and this could have been published through all media institutions, through different ways that they can reach the public to the last person in the Gambia who speaks the least um, uh, uh, uh, a of am ñi nga xam ne seen làkk bi moo gën a ndaw ci réew mi seen xeet moo gën ndaw ci réew mi ñu làppatoo leen ñu xam ne kat nguur gu est bi ñëwee ak léegi def nañ nangam ak nangam ak nangam pour Gambia and not only through GRTS wala toog ba Halifa wax ñu correspond Iba Sarr jërëjëf wax nga na kenn dogaloo bu fi doog kenn nag ya wax nga be lu la neex be nga ñaxa mar nga jëlal ndox nga naan waye li nga wax amna solo macha allah me rek biko man may pop up ñoomi tamit ci lañ bokk buñu leen di faté su ko défé rek vidéo bi daf dem su démé ñu bari seen comment ci daf dé mëna uh, skip uh, suñ mindset té ñoomi ci lañ bokk papa Ousmane. Mm-hmm. jërëjëf Iba dang doon um, uh, recommend ñu read comments yi right waaw many new ñu because video bi daf dee dem te di moom ngee dem daf dee mën skip this government is not transparent all because um this uh, radical duwaaf um <laughs> uh, Ousseynou names ni this government is not transparent all because of this blank um uh, Dabo um uh, Elijah speak English please um, when I stick to one language product, we can understand um, you pipping, mixing everything together. Uh, we wish we could have um, said uh, things um, uh, uh, uh in one language. I wish I showed that earlier. Um, those are some of the comments you have made. Even Sananga coordinate requirement um, pull orders before you come in. Well, after so waaw right euh, Pa Ousmane comme fu ma emoon rek la dama dooroon ci di opening of Halifa Sallah ma continuer rek fu ma emoon euh, Halifa Sallah nag li tax mu ekkati press mooy coow li comme li nga wax Papa Ousmane mu doon li nga xamante ne mooy coowal system change there is a regime change system change moom tamit mention na fa journalist bi ñoo wax ah, Sadio Barrow mu ne remarks yi nga xam ne Sadio Barrow ah, oote na ko ba tax nag moom ah, Halifa Sallah tamit mu ne read na script bi nga xam ne bés boobu nga xam ne mooy Sadio Barrow doon read news wax na ko waaye lan la fa wax ak lan la Sadio Barrow wax mooy Eh, mbiri eh, moto yi nga xamne Papa Ousmane wax nga ko Sadio Barrow de moom ci biir news bi mu ne ba pare nak dañ ko dawal ci state television bi mom khalifa Sallah lool la wax luy dawal ci state television bi dañ ko script ba pare tam ndax DG gisut won script bobu non pour ñu wara xol xool nik xali eh, Sadio Barrow li la wax Pa Ousmane foog naa yow deglu nga ko Sadio Barrow mu ne nguur bi dafa dañ joxe moto pour ñi nga xamne moy National Assembly members yi bu ngeen ko joxe amna ñu gëdd seen moto delloo ko waaw am na ñu ko gën a delloo ko te lu tax nguur bi jox leen moto yi mooy pour mu mun leen a dimbale si seen i liggéey benn pour mu mun a dimbale ñi nga xam ne si seen ay gox lañ dëkk ñu feebar buñ feebaree guddi pour moto yooyu mun leen a dimbale loolu Pa Ousmane eh, news bi teguwut is nepotism ak favoritism loolu lañ ko gisee te news warta demee noonu foofu noonu ak According to Halung was na sajo baro law lolu uh, is not ethical. Uh, do they reach their Jews Wax na ne am nañu joxut Halifa ñëw na mu leeral ne ñoom comme noo ko waxee Papa Ousmane soo gisee moom jëlut moto yi uh, amul benn li nga xamante ne maanaam it's not official. There was no writing. amuñ benn binda boo xam ne jógee ko na ci office président bi ñëw ci moom Halifa Sallah pour wane ne dañ koo jox moto ba pare tamit moto yi nga xamante ni ba tey moom xalifa mu ne def na gëstu pour wane ne moto yi fan lañ jógee koo te lu ñu leen wax mooy an anonymous donor koo xam ne bëggul néemam ñu mention ko Ousmane yii na dañ ko war a génnee waaw yi Halifa nag foofu la ibee waxtaanam maanaam mooy si Sadio Baro ba pare script bi jël na ko moo tax yi binta yi nga oo noonu mu ne dina ko yóbbu ba pare Halifa mu ne dafa demand an open apology because daf ko ridoon openly koola boobu duggoon loolu la wax mu ne ñun journaliste sax suñu liggéey eh, sikkewut because xalifa lu nekk mu ne daf ko yóbbu ci ko waaye comme li nga wala rek fu nekk xam na Halifa ci ci ci ci xarañam ba tax nag lu nekk daf ko dee natt ci ci ci ci ci ci xam lu nekk daf ko dee natt ba mu dee wax تخلف xalifa فرصة naa force وهم تجيبون woon pour mu واحد جبرنا tax برينا وياكم نو ñëwee من عندك إنفستيجيشن ji bari na coow li bari na waaye comme nu mu wax la mu ngi doon def investigation am ñu ngi gën a ñaax rek directeur général of GRTS mu bàyyi xel script yi nga xamante دي bu ñu wax ne amuñ time bu ñu wax ne moom BBC because Manko koo he was once a correspondent of BBC The accused woon Kër not ak so waxoon na waa Kër they are not journalists but he was a journalist ñu jëru rek fàttali koko. ko kon moo tax ma ne Bojang Sankaranka ñu ngi lay maa ngi lay gërëm bu baax a baax a DG ñu ngi koy Pa Ousmane BBC boobu nga xam ne mu ngi doon is not governed by the government xam na fa maa dina ibi the text of BBC xam na ko mu ngi leen doon représenté te xam na nu mu leen doon représenté ba pare ba tey moom général boobu noonu tamit ñu ngi koo fàttali free coverage Free coverage should be given to all political parties. Free coverage should be given to all political parties. Nepotism, favoritism is never accepted. In the course and standard of the BBC. Halifa Wahnako, Ona Chitram, ñu ngi ko bàyyiloo xel moom warut a seet ne waa nguur bi ñoo ma fi teg BBC keroog bu ñu ne BBC da doon liggéey suma xel dafa dal waaye nag Gambie du moom kenn rek bari na népotisme ak favoritisme pa Ousmane te yooyu fekk génne wuñ ko si ñun dafay su xatal suñu réew mi comme lu ma waxoon na sa njëlbeen te damaa dellu di si wax bu fekkee ne tey fii laa ko dooree Gambian Talents bu ma bokka ñu ngi apply pour ñu ngi ut staff nañ go according to CVs according to backgrounds according to checks mooy CV bi qualifications nit ki doo ko teg place boo xam ne xamu fa dara Halifa wax na ko lekkati kese naxut ay béy waaye boppi kese tamit yóbbuwul réew olof a ko wax de mu ne lekkati kese naxut ay béy béy boo tegal lekkati kese du la daf ko daf ko kik mu dem waaye tamit boppi kese yorewul réew moo tax nag coow daf de bari ba pare xalifa ñu ci ñëw waaye kon ñu continuer bu mu jógee si Sadio Baro ak yooyu noonu ba tey moom dem moom xalifa ba tey mu ne press release bi nga xam ne bàyyeeku na ci nguuri président bi ci office of the president is not authentic pa Ousmane looloo ñun ñëpp ñu war cee bàyyi xel ñu war dafa ragallu kii wax na am na yu doon génn signing ko it's not right anything that needs to go out from the office of the president should be checked ndax Ami Bojang moo ko génnee mm-hmm. a fekkee ne Ami Bojang moo ko génnee o Lawyer Darboe o Mai Fatty they should resign fii dafuloo nga def loolu noonu sax kon which means ne ñoom ñu ngi tutti baro position am because new it neen seen bopp su fekkee ne ay document mu ngi lig di and Lolo Nona is getting scary lu am ni Gambia ba pare tamit ñu ngi tax askan ba ñoo bàyyi xel ñu ngi question ban façon government lañ am comme li nga wax la Gambian people kenn du leen fulaati jamono jooju romb na euh, ba tey moom Halifa Sallah si spijam ba tey wax na loolu ba tax na mention nag mu ne it was in sign comme liñ ko waxee la ba pare Ami Bojang was name as the Ami Bojang was list as the contact person right now fii ba pare Ami Bojang mu ne ñu contact ko fu mu nekk contact nañ ko Pa Ousmane ku nekk gis na réaction of Ami Bojang nit ñi ñu ngi doon wax ne Halifa dafa mu get agitated mu upset he has a reason Khalifa, lu nekk si cësam bi dafa bari waaye Ami Bojang tam mu ngi di get agitated I think li nekk na loo xamante tamit suñ Gambien si da ngay gaaw mer te bu Gambie wax nga ko nit mer for what reason ñi nga xam they are our key political figures ñu mer di get agitated for no reason we cannot debate reasonably mer mu ñoo suxat bu baax ba te lima day jaaxal ami bo jon tey su fi bi am fi office lu mer mer daf bay bàyyi ba airport dafa régler and and the terms and the law and the policies of company bu moo liggéeya khalifa wax na yu yatu suñu ay passeport suñu ay embassy ñun waratuñ di jogu suñu ay passeport Gambia suñu embassy ci ñoo ñu wara represent khalifa dibé tam bi yatuna na khalifa ba tay ci waxam bi mu ñew fatelil ami boo public officer la ba pare nag fàttalikool ne ko sa liggéey boo ko fàttee moom fàttalil la mu wax Ami Bojang li nga xamante ne maanaam di code conduct course of conduct with professionalism yi nga xam ne dafa ànd ak office bu mu liggéeyal muy role of a public officer Mom Halifa Sallah mention na ne a public officer should be neutral waruloo bokk ci benn politique ah kay ba pare wax na mu ne ku nekk war ngaa am political leadership waaye nag dangaa neutral Ken warut a xam foo bokka te moom ah, ah, ba pare da nga war respect and comply with the law fàttali na Ami Bojang ba tey mu ne promote integrity and to avoid nepotism and favoritism yes which is very true public officer yëpp la wax including Ami Bojang herself moom Halifa ci gàttal amuñ time duñ mun wax yëpp you know ba pare mu ne prejudiciary to the right of any other person which is very very very clear xalifa mu ngi kóot suñ ibee ñu ne xalifa dafa mun a kóot kóot yu a axa kay léegi-léeg angaleem nag dafa diis ba li nga ibi dictionnaire yi soona waaye tamit nañ bàyyi xel ci lu moo wax eh, bi eh, problème boobu amoon pa Ousmane Kanilaay dañ ne waa Kanilaay ñoo tooñ waaye bi yoon gouvernement bi ñoo wàcce yoon bu dëgg neexee yàlla rek ñoo wàcce yoon press release be what again? office of the president without being signed What again? office of the president without knowing the person who did it ñoomi neen xam nañ ko ko génnee kon lu Halifa wala na taxaw mu génn and then dafa demand an apology te lu mu wax ne foofu la mooy dem mooy si Anthony general bu fa jógee mu dem ci minister of justice dem ci legal adviser of the government si loolu amul dina dem si ombudsman am na ñu maa la gisal what is ombudsman xanaa si kanamee tuuti nga dimbala ñu ci loolu noonu because comme lu ma wax la Halifa ay angalam day diis diis boo xam ne mo moom fa naa ne moom leer na ci ñi nga xam Office of the Ombudsman Lamoa, Iba Attorney General bi Minister of Justice bi is the same person But oh, mm-hmm. I waaw oh wow, noonu waxuñu yooyu yëpp loolu clair na si bopp nit ñi. yaa ngi ne mu dem si office of the dina dem. office of waaw solution bi amoo si la moo egg ci kaw te du andoon. Secretary General ak PFN bi loolu yëpp Halifa li mu wax mooy dem na jokk waa uh, GRTS ak am ki nga xam ne moo amee kàddu government bi di your legal advice muy Bata Mbeddu di Attorney General and Minister of Justice. si ñoom la moo dem moom la moo njëkka dem ak GRTS Ibrahima la waxtaan ak ñoom to get an apology for guy to a uh, um, uh, uh, li nga xam ne mooy statement bi gars yi d'accord nangu ne ñoom ñoo ko def tooñ nañ ko based on loi yi mu wax ne moom la gars yi break su ko gars yi defutee Bata ak nguur defuñ liñ war a def GRTS defuñ liñ war a def ci seen soo gisee mu involve ci GRTS ci li Sadio Barrow nekk employee of GRTS moo tax su fekkee ne contract nañu ñu they did not do anything defuñ ci dara pour seen boppa moom dina jóg mu dem ombudsman office of the ombudsman is an office boo xam ne moo amee wàllum ñi nga xam ne ñooy liggéey ci nguur gi ci biir dëkk bi pour mun a doxal dëgg ci seen diggante si ñooñu la moo dem office boobu la moo dem pour ñooñu kat ñu doxal di di dëgga dem seen mooy nekk la solution am waaw loolu mooy office of the ombudsman ñooñu special office la boo xam ne nguur gi am ñoom ñoo responsible loolu noonu pour doxal public service am seen issues yi ak yooyu noonu so dina dem foofu noonu pour seet ñoom lan yan tànk la ñoo def ñu def seen investigation and then they can take over whatever they need to take over with um, am ak moom ah, mooy ne fu mbaxana nekkee benn rek fa laa mujjee ak ñoom su ñu dee pour ñu mu press charges su ñu dee pour ñu dem court or whatever they are going to do dinañ ko def waaye loolu wax na yaa ngi doon wax ni nepotism iva am ku laajte loolu noonu um, what are you saying um, bi nga wax nepotism just want to know kan nga accuse of nepotism here somebody wants to know kan moo nepotism fii nii na nit ñi déglu bu baax Gambia dinañ déglu ba tey maa ngi kóot Halifa Spijam bi lu wax ma dem na Mm -hmm. muy fàttalil Ami Bojang rôle am as a public officer. mu mention yu bari yi mention ma ñëwaat ci pour mu leer moo tax may ma rek Pa Ousmane bul ma daga mu leer pour ñuy wax boo waxee may wax nañu duñ dégg te Gambie nag comme li nga wax na suñu àlluwa sóorewut bu baax waaw moom Halifa Sallah moo wax de muy fàttalil Ami Bojang rôle of a public officer mu ne they should be neutral political neutral but pare tamit respect and comply with the law promote integrity and to avoid nepotism and favoritism loolu la Halifa wax bu mm-hmm. fekkee suma wax bi leer na so kàddu Halifa nga doon bamtu waaye du yow yaa daf ko si spijam bi daf ko break down mu ñëw ci of Halifa constitution bi la doon code Iba constitution ah, bi la doon code Wow. 222 si constitution bi moom la doon quote noonu rule of a role of a public officer loolu la don wax foofu noonu mu leer ah? si koola boobu noonu ah, si kooku noonu doon laajte kontaan nañ ci wax dafa leer eh, ba tax mm-hmm. rek ñun waxuma fi dara loo xam ne maa ko mee ko moo tax ma mm-hmm. binda ko indi ko pour mu leer du sumay wax waxi a Sallah la waaye lépp lu mu wax rek am na si solo lii mu wax ne role of a public officer lu am important la lu am cas la lu am sens la office lañ nekk ku nekk rek dama de wone pause ma ni ku nekk bala ngaa déggu ci biti déggul ci biir yow maa ngi liggéey yow waaye suma boppa man maa war a ngi ko déggu laataa may woon Papa Ousmane dëkk bi am na keneen ku waxoon benn temps rek exemple la am li nga xam ne mooy suñ medical euh, when it comes to the health side then am ñi nga xamante ne ñoo ko CQC dañ dee ñëw check set na liggéey bi jaar na yoon musuma lox musuma parpari musuma tiit musuma ragal su ma ñëwee su ñëwee ci lopitaan bi sax before dama daan mel ni sax nekkuñ fa because maa ngi def suma liggéey we have to be truthful to ourselves first lu tax ñu yóbbu la fa lu tax ñu laa fay make sure yàlla na yaa ngi ko def bul seet papa Ousmane mu fa nekk bul seet eh, eh, Barrow mu fa nekk bul seet Halifa Sallah mi fa nekk be truthful to yourself eh, nga honest to yourself den ku ci nekk ci biti dina la jox sa cër te dina la jox respect ba tey ci exemple yooyu pa Ousmane bu yàggut nii laa am euh, sick ma feebar ma tëdda suma kër dew ma liggéey inform naa leen euh, saturday dama dee off sunday ñu schedule ma dëgëruma pour liggéey ñu call ma ma ne dem liggéey ñu def meeting ñoomi neen ooma waaye meeting bi luñ fa jëlee mooy non kii mm-hmm. du mun a call sick te feebarut moo laa woon ne nit ku nekk dangaa déggu sa boppa ñoomi neen buñ defee seeni meeting ku nekk lu mu ekkati mooy non non non Eva melut noonu non non non du dafa feebar moo tax ñëw liggéey waaye du dee ñàkk a ñëw liggéey nit ku nekk dangaa déggu ci luñ la dénk Papa Ousmane seetuma lu neex ma Samba ci liggéeykaay bi seetuma lu neex ma Demba ay dama dama ay dama dama commit pour jël that job if you are committed to do something do it mm-hmm. wholeheartedly te loolu bokk na ci Gambia ni loo xam ne eh, bokk na ci system change bi ba tey Halifa Pa Ousmane ci waxam li wax mention na ci yu baree baree baree bare yoo xamante comme lu wax la moom Sadio Barrow moomu noonu lu wax noonu tegut ko ci yoon te ko fenn fi nga xamante ne maanaam euh, mooy ay sarta waaw mooy ci ar sarta dafa mel ni mu ngi favor euh, whoever ku ko wax ko riidal li di ko wax na ne ñoom amuñ anything loo xamante is written lu nga xam dafa transpired between mm, office of the president in hand overing those vehicles Halifa wax na ko mu leer waaye moom Sadio Barrow dafa wax ne ko nguur bi jox nañ nit ñi moto waaye am na ñoo xam ne dañ delloo seen ay moto te xalifa rek ci gàttal foog naa moom moo delloo moto yi kon xali moom waroon na moo am lu ko leer lu tax Halifa delloo yi moto yi xalifa mu ne yëgut tiinut ba pare bu leen laajee lu tax dafa ne dañ jógee from a generous donor moom mu ne moto bu jógee from a generous eh, anonymous donor moom du ko jël lu moo jël dafaa nekk lu leer lu tegu ci yoon loo xam ne nit ñi mën nañ ko ko wax te Pape Ousmane foog naa yi dañ ko war a effet di other time bi nga xam ne gift boobu mayoon nañ ko kooku sénégalais boobu noonu may kolaan dafa juróon coow an anonymous donor dana tax nit bugg a hide ID yam pour bugg laa may all those vehicles ba pare bugg to complain bëggut a complain to the public am na lu moo hyper Ousmane am na luy ñuul si sow si lu moo nuba yes soo ko bëggee mayor yow government bi o whatever président bi yéen a fa nekk suma rôle as a président mayor tut ma may jël mayor si suuf si ku moo mun ti jógee na génn si mu taxaw mu bo boppam na génn si mu taxaw mu wane boppam mm-hmm. mm-hmm. kàddu gi rafet na mm-hmm. so a yooyu la wax xalifa wax na yu bari dem na ba ba bi yëpp wax na ko ba pare tamit nit ñi ñu ngi ko doon laaj all along fa Ousmane lana tax moom xalifa Saleh because dégg na ko ak li nga xam ne mooy press release boobu noonu génna yëpp wax na ko moom xalifa dem na mu éduquer mu ne ba tey wax na ko uh, it was uh, mu ne P wax na ne PDO IS rek ñoo fa nekkoon o moom Halifa ñoo fa nekkoon jamono bi nga xamante in impasse bi am na wax na loolu ba pare dem na wax tam ne Gambia is a sovereign country and a sovereign sovereign republic and we cannot be part of any government moom Halifa wax na ko ñoom moom Halifa du bokk ci government te wax na ko government bi toog benn government bi nga uh, part of any government bi nga xamante uh, is not a sovereign republic moom wax na loolu noonu xam nga moom Halifa sala. ba pare wax na buñ ko jaa buñ leen jàppee ba dem jël kenn ñëwul wàcce si si mbedd bi eh, taxawu leen wala eh, nemmeeku leen moom Halifa wax na ministre post bi nga xam ne offoon nañ ko ko mu dinaay ko yëpp indi na leeral because all the time askan bi dañ ko dee laaj loolu lana tax moom mu mu reject that offer o lana tax mu withdraw that offer moom Halifa wax na ko mu ne it was a crucifixion of our sovereign status moo tax jël ko moom Halifa Sallah la wax waaye xam naa bu ko journaliste laajoon lan la min ci loolu moo tax moom jël poste boobu noonu te du ko jël tey du ko jël ëllëg mu ne ñoom euh, moom Halifa Sallah du patronise Ben Gambian pour win seats ba tey ci ay waxam du patronize benn Gambien pour win sit du du du sit kenn pour win sit ba pare du bribe kenn pour mun a am more sit in the house of the the parliament moom Halifa yooyu la wax ci kausman lima li ma binda yëpp mënuma ko pay indi neem na yu bari nag yoo xamante ba pare moom mu ne intégrité am daf koo sama moom Halifa Sallah du ko mm-hmm. jaxase ak satcha du ko jaxase ak leneen moom intégrité ko ko cee bugga nga bugga ko ba tey ci gàttalam ci conclusion yi waxtaanam bi ñëw na mu ne coow li bari na ku nekk comme lu kola boobu njëkkoon naa is Halifa's way or nobody's way indi na ko fa because gis na post mu ngay dem on social media nit ñaa ngi koo mu ne eh, daf di question lu bari nit ñi naan eh, Halifa rek moo nekk moo fa ne mooy di brainy person indi Gambia mu ne nag lu mu dee laajte comme lu moto yi yoo ne bi ko ay pausman bi la may moto ngay laajte fan la moto yi jógee di laajte fa xaalis bi jógee nga ne ah jërëjëf li xewal yàlla la wala yàlla daf ma tàccu comme ñu ko bari di wax waaye Halifa mu ne bokk na ci loo xam ne moom dafa bokk ci moom moo xam ne lépp lu mu dugg daf koo gestu te nag lépp luñ ko laaj dina ko indi si assemblée bi waaye nag saa yi bu mu ko indee coow dina ko topp xalifa dañ foog ne moom moo xam yëpp Halifa dafa jaay ne moom moo gën a jàng Afrique Gambien si yëpp Halifa lii xalifa laa mu ne waaye intégrité du ko exchange with anything ci gàttal loolu la conclure wax na tribam bi ba tey itam tribam bi Pa Ousmane mention na ci lu ama am solo yoo xamante ne bëgg naa ñu bàyyi ko xel eh, am na fu ma ko noor daaw nga balal ma rek su dee na ko mën a pull out ma pull ko su ko defee ma riir ko waaw mu ngi nii eh, tribam bi mm-hmm, waaw bi nga xam ne def na ko mu ne eh, bu mu defoon ci bu mu ñëwee daal tribam bu mu defoon ci mu Eh, mu ne yu bari interested in protecting state interest of the Gambia yooyu bokk na ci lu ko indi interested in protecting state interest of the Gambia yooyu bokk na ci li nga xamante ne moo ko soxal mu ne international contracts tam bokk na si yu ko yóbbu yooyu yëpp wax na ko visit mu ne port bi dem na visit port boobu noonu muy Zimbru dem na visit port boobu noonu waaye bu mu demee tamit Pa Ousmane mu am lu am solo lu fa Halifa wax mu ne bu mu demee port bi dafa daf doon find out how seen facility yi nu ba pare how can uh, their how can the Gambian benefit from their experience? How can the Gambians benefit from their experience? wax na yu baree baree baree bare yoo xam ne Pa Ousmane ba pare na tamit mu ne Gambia high dependence bi dafa bari foofu noonu ba pare tamit ñeneen def nañ vidéo ku ci mel Demba Ndiaye support na loolu noonu yëpp eh, mooy li nga xamante ne mooy high dependence bi a ñi nga xam ne ñu ngi try pour code di konas moom Halifa ba tey wax na ak Gambia yi nga xam ne bëgg nañoo dem Gambia eh, yëpp mu ne mit na leen pour business mu am ñu bari ñoo xam ne dañ ragal ñu ne dañ leen dee closal bi wasn't eh, a a direct duñ leen a waaye gis Halifa mu ne leen is not an excuse so leen buggee ñib si bugg a set up seen réew ñëw leen ngeen set up ko try and go to the right channels yooyu yëpp advice na ko ñooñu ba tey Pa Ousman si spijam bi moo tax mel na nit ñi jël time day digest wax wax doo ko sorox sorox wax danga ko lifin eh, may xel déglu ko lii nag jël na ma about seven hours pour ma war a toog déglu ko dégluwaat ko indi ko bind ko moom Halifa ba tey wax na ko eh, eh, PDOIS will not patronize people just to gain seats that waxoon naa ko so hmm. loolu leer na mu ne ñu ko cee bugga ñu bugga ko ci ñu ko cee bañ ñu bañ ko ci mu ne ba pare ñoom seen mandate mooy to see Gambian people take in charge of their destiny wax na ko ba wax li nga xam ne Gambia ñun luñ dee import bari wuñ si lu ñoo export waaye maanaam 95 eh, percent of yëpp dañ ko dee import ci biti te loolu high dependence la ba pare nañ jàngal nañu wax na ba wax ci xaalis bi nga xam ne EU jox nañ ko président bi boobu tam mu ngi gën a wax ne ñu ne nañ bàyyi di accuse eh, government bi suñ si bëggee am lu leen leer nañ seen seen question to the House of the National Assembly ku ko munta rees moom xalifa bu ko jotee dina ko rees waa mu ne dëggale EU dugal nañ fa xaalis te lu taxoon ñu dugal xaalis bi yëpp wax na ko faram fànce na ko ne government war na ñoo a te dem na ci ba nga xamante ne wax yu ma wax noonu ak dépendant high dependence bi ba Chinese di ñëw di indi di invest Chinese waa dañoo invest seen matériel la ñu indi seen ay baga waaye naka la ñu mun a jàngale suñu ay doomi réew yoo xamante ne ay Gambian lañ ñoo xam ne eh, dinañ leen Chinese bi dafa ñëw sax waaye na si suñ doomi réew yi bokka ñu jàngal ñooñu buñ demee buñ suñ doom yi mun a teg over te loolu exemple boobu ma laa jox muy ñu ngi ñëw teg over suñ bi eh, yëpp nekk sénégalais nañ fa dugal Gambien ni Pa Ousmane ñu liggéey ci comme lu wax la eh, eh, seen facility ak how can benefit from their experience naka lañ mun a bénéfité ci loolu waaye buñ ko jëre jébal ko benn company ñu ñëw def yu ñoo def Gambien ñu bàyyi leen si suuf foog naa ne buñ doon vote these people in eh, Gambian should be their top priority pour leen mun la woon a jox place yu bari lii nag has nothing to do with me eh, yéen ñi saaga bu leen neexee saagal leen ba sonna am ready for this moo tax ma wan leen iya. kanam bi xalifa Papa Ousmane ci gàttal bari eh, na yaatu na bunda naa yëpp nag wax dëgg ne yàlla lii moom is about five stages yoo xamante ne jot na li ñu wax rek Iva ñun suñ responsibility is to tënkal nit ñi li nga xam ne moom la xalifa wax vidéo yi ñu ngi foofu wax na ko ci angal moom naa la wax yi yëpp yi yëpp tënkal la Papa Ousmane yi yëpp tënkal la xalifa lu wax yëpp ñu dem ñu déggul ko seen bopp ñu encourage leen pour ñu delluwaat ñu déglu vidéo yu noonu mu ngi si suñ YouTube Councilman why Soundly sound was really bad so xëy na ñu bari duñ understand wax nañ wax nañ loolu Eva sound bi baax na waaye yow mun nga koo déglu pour understand ko jéem a make sense out of it ñu nit keneen ku munti nekk rek nañ ko déglu ñun jox nañ leen suñ feedback pour gars yi jéem improve ci yooyu next time hopefully it will be considered not only by Khalifa but everybody else because Pasala Jeng si boppam bi moo def press conference am bi they had the same issue I mean this is something that runs across so ñoom ñëpp ñoo war a bàyyi xel yu demee noonu comme ni ma ko waxee rek xam ne Gambia gu njëkk gi ak Gambia gi nii du benn so we encourage everybody pour ñu dem ñu seetaanaat videos yooyu noonu rek ah, ñu continuer à read some of the comments Iba um, ah, su ko defee ñu lay Ousseynou Dampa Bayrou by mu way, laajte mu ne why was the Halifa invite GRTS ci event Sami mooy ci gannaaw bi doon wax ci affaire GRTS bi ak whether bi nga laajte whether they were present did they cover it or not Mbay Dabo mu ne through sis um, young uh, um, Mohamune uh, Iva, your analysis was a very good point. Um, uh, said, Sise, Mune sister, which press secretary do you see or hear who don't defend their government, their government statement. Um, uh, Mohammed, sister, you already said it clearly. We Gambians, our Aloha is not so far. Um, they're all full of uh, propaganda. Uh, Bravo Delta Siddiq, he is a psychopath. Uh, Moha, how is you know, how did you know that he is part of UDP? Uh, Mune Khalifa himself uh, doesn't respect his integrity. Uh, he is a coward. That is why he never took uh, uh, mantle of leadership in the new government. Uh, those are just some of the comments you have made. dugg si ne ñi nga xam ne yéen a ñoo déglu uh, di ñu seetaan uh, Gapron know exactly what he is um, doing mu ne Halifa xam na bu baax li nga xam ne loolu di def kon ñu ngi bëggee di ñi nga xam ne yéen a nekk di ñu déglu di ñu seetaan press conference bi mu ngi foofu noonu um, uh, uh, li nga xam ne moom la Halifa Sallah def ak wax comme niñ ko waxee you can go back and listen to it ñu ngi leen a ñaax ngeen um, visit our YouTube page and subscribe to it Gambian Talents on YouTube you will be able to watch this on your big screen or on your phone wala boog su ngeen demee si suñ video page bi on Facebook Gambian Talents Promotion you will be able to su ngeen like page bi you will be able to see any and all of these things that are happening in the Gambia I've been saying it that Gambian talents have been transformed instead of um, uh, uh, uh, uh being um, that, that, that, that um, whatever we used to be. Now we are actually a full-fledged media institution that will be broadcasting and bringing to you anything that concerns Gambians. Um, that is the new Gambian talents. Like I told you, we are working on a lot of things which we will bring your way um, eventually. Um, this Halifa Salah Act uh, Press Secretary um, or Office of the President issue is something Lord Hamne is very disturbing. Um, Lena rek Kowa finally ju jokku ñom Fabakary Tombong Jatta My the Office of the President mang challenge and the new government to open their doors to the media houses, the media um, and talk to the Gambian people lu am solo la pour ñu contact ku mel ni Ami and she refuses to or decline to interview um uh, uh, refuses to make any further comments um about this thing it's just um uh, unfortunate um uh, uh, uh um yes we could be listed as anti-government we might be in the red books of the government but i can tell you we have a responsibility to bring you because the average citizens don't have access to the government. The average citizen don't have access to our politicians and the people in leadership roles handling leadership positions consider responsibility la ñun pour ñu reach out to you guys moo tax ñuy toog di ŋàñña journaliste Gambia yi ne duñ dee def research duñ dee follow due diligence duñ dee toppa duñ dee investigate nangam ak nangam there is no better investigation than reaching out to you for you to shed light on things yoo xam ne you have been accused of things that are being said about you waaye suñ la contacté nga close your doors to us ne doo ci comment loolu is not encouraging at all so kon ñu ngi ñaax government bu baax a baax a baax pour ñu gën a bàyyi xel ci loolu noonu ah, kon Iva ñu jël another break rek waaye ñu jéem a jokkoo Fabakary Tombong Jatta um, of the APRC real quick rek pour seet um, what is his take about the um, APRC rally ak ñi nga xam ne jàpp nañ leen ah, naka dóor nañ leen foofu ca Busumbala li ñoo allege ne it's something new pour mu confirmal ñu ndax loolu am na wala amut kon boog ñu jël this break and we'll be right back don't go anywhere Let's do it. We'll be right back. lu tax du dem ci dëgg waaye afa ak bu ñu làngee ba pare rek kenn làng waaye daal waa afa ak yàqoo leen ko benn yoon ndax bëgg lu baax xam lu baax ko xalaat di ko def ci réew mi réew mi gaañ yéen sama gaañ waa Géejoor Alpha ak Kitchen ñoo leen di woo ci exclusive ngoonal barbecue samedi ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru décembre dama ne da ngeen a a lekk yu neex yu saf saf yu sell te wóor fekk si leen ñu ndax foofu yaa nga fa ebe eh barbecue and Afra snacks lekk yi daal saf na sell na wóor na te it nag day ànd ak entertainment saf sàpp bu di safee noonu la entertainment bi di safee sàpp laa ko tuddee gaañ yi bés bi kañ la samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre waaye nag di leen fàttali géej jooro arta ak Pikine ñu nga jàkkaarloo Apple Tree High School bi képp ku ci bëgg am lu leer jëla sa téléphone jokkoo ak ñoom waaw kon ñu jël des break rek waaye ñu jokkoo ak Baba Kaye Mame Jatta tante galidani alkano ke fitnoti galidani Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ak Iba Sarr rek ni lañ koy defee am saa su nekk ñu ngi leen ay déggee di leen dalal di axlan was axlan macha allah dellu si waat nañ rek Iba Sarr ak Pa Ousman nekkal leen ci gannaaw microphone bi li xew mooy last week dañ startoon show bi nag mënuñ ko woon jekali, and here we are again pour continuer leen rek li nga xam ne moom lañ doon waxtaanee muy affaire yi press conference bi nga xam ne anam discussion bi nga xam ne honorable Halifa Sallah def na ko ak Gambien su nekk fële ca bitim réew ci Europe ji am rawatina London mu trigger woon the government of the Gambia respond on tontu woon nag kii di Khalifa Sallah Khalifa. génn si waat nag tontuwaat leen def a ah, ñu jokk woon um, ah, kii di Fabakary naka kii di um, Amibou Yang Sissoho nga xam ne moom moo nekk ah, di office of the president mooy gémmeñi um, nguur gi nga xam ne lépp loo xam ne mu ngi go on ci nguur rek Ah, moom moo koy am am am am làppatoo moom moo koy jottali moom moo koy wax ci gémmiñam te lépp lu mu génnee rek macha allah si ñoom la jógee kon ñuy bégee Ami Bojang Sissoho ah, gannaaw bi nga xamee ne wax nañoo moom ci gannaaw ak kàddu yi nga xam ne dégg ngeen mu gaaral ko foofu noonu nanguwul ñoo wax lu bari nag kon niñ leen ko waxee ci gannaaw rek duñ def dara lu ñu jokkul leen kii di Fabakary Tombong Jatta rek pour waxtaan ak moom ah, waaye maa ngi jéem a di Fabakary na Budigandia, direct, Maybe you have a couple of things you want to add while in the fa Kari tombong. Um, tafadal Iba. Wa pa Ousmane eh, gannaaw kari Bakary ñëwangul rek ñu wax rek ne Gambia nañ dal you know eh, tontuwante bi du yóbbu kenn fen eh, Halifa dina fa nekk tey dina fa nekk because Halifa dafa as a check to the government The Gambian si nag bëgguñ ku check ñun tey papa Ousmane ñun ñu ngi face that trouble if you don't patronize with them duñ la support Patronising each other dañ ko war a génne si suñu ay liggéey mu ñoo tardeel loolu bokk na si système change The système change fu nekk la nekk Gambie yee dégg la am nañ regime change but the system is not yet change So demee si institution there is a problem and all that so ko assessé mu ngi under system change airport bi eh, we don't have computers ngañ ak ñeneen ñu wax nañ ko these days dangaa bëgg dem def benn project sax pour ñu won la yaatal la yoon bi duñ la ko woon ñu ngi laa yow doomi Gambian bi yooyu yëpp war nañ koo génnee si suñu biir bem bem set bu fekkee ne fiil nga comme ni ma wax la la la dem ñi nga xam ne ñu ngi kii political figures lañ nañ di neutral ku nekk nag am nga politique boo xamante ni comme ni ko Halifa waxee foofu ngay bokka yow Pa maa ngi ne xaw ma tey bu fekkee ne eh, diaspora vote bi dugg na fooy koy sa yow sa sa sa candidate xaw ma ko likewise yow xamuloo man suma candidate because duñ ko dee discuss te mbokkuñ si suñu yaram bi bokkuñ ci suñu yaram bi at all ku ci nekk rek ya amé sa carte sa polling card kan, nga am ci time bi joté nga dem nga vote in peacefully nga ñibi te jamono ji politique nu mo démé Gambia mu get uh, from worst worst mu ngi gëna metti té te nasté because su fekkee né luñ jot ni fabar uh, Kari Tombong Jatta mu ngi ñëw pour sétal ñu ci ndax lu am la ndax lu amut la den uh, yaram warna mo daw té ma ngi gëna ñaan su kilifa diiné ñu gis luy dem yépp ñoom Ibrahima Babali na ngi leen a challenge wax na ko keroog fii bu problème yi maaka boobu amee mu ñëw challenge yaat nañ ko nañ génn ñu wax askan bi eh, Imam Ratib of Banjul nañ génn this new business nañ ko génnee seen businessé yi nañ génn moo tax ñun yàlla defut ñu am ay tariixa tariixa tarixa pour bu tariixa bi jógee wax ay nitam noppi. ñun yaakaar mooy suñ kilifa diine yi ñu jóg ñu wax seeni ay nit bu kilifa diine yi ba pare ñu jël wax ak nga political uh, leaders yi ñu tamit ñu wax ak nga seen uh, party members yi ñu wax ak ñu indi jaama ci réew mi Papa Ousmane Gambie nu politique bi nu it's getting scary by the day ba pare government bi tamit or or or mouthpiece or whoever are behind this UDP uh, or whatever let them stop attacking people obviously mën nga leen a attack ngeen debate su fekkee da nga fii ne Papa Ousmane is getting agitated rest your case rest your case waaleykum salaam Um, is that Honorable Fabakari? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Um, is that Honorable Fabakari? Yes, please. Well, is that? Yeah, Nakanga Def, Mr ma naka def Mr Jatta ma naka def Mr calling live from Gambian Talents Radio in America. America, America, America, America. Okay, in US. Okay, Yes, in the US. Wow. Um, you're live on the radio right now, and we just wanted to talk to you about same meeting we nga xam ne def la laaj a few questions like, about the meeting and um, okay. the success of it. Overall, if you will gauge the meeting of APRC, um, ñu bari gannaaw bi nga nuyu wanteeg suñ mbokki déglukat yi ba um, uh, APRC have been planning this meeting Thiowli uh, bari woon ñu ne APRC deena we happen to watch the interview being a xam ne def nga ko ak Kër Fatou nga wax fa yu bari ba leen léegi ñu ñëw gis li nga xam ne moo xew uh, si meeting bi ñu bugg first Your overall how would you gauge this meeting APRC meeting gannaaw bi nga a new one. mbokk ci déglukat yi. yeah yeah thank you very much. Mm-hmm. I mean the pleasure to to diaspora mm-hmm. about the issue activists, particularly about uh, socialist values. Mm-hmm. Uh, what is fundamental is that previously, uh, uh, when we are a ruling party, mm-hmm. when we are a ruling party, mm-hmm. we, we used to provide transport all around the country to transport people. Mm-hmm. But this time, Mm-hmm. This time around, mm-hmm. we could only provide we catered more for even accommodation and the logistical support. Mm-hmm. You know, from the projects we had. Mm-hmm. But uh, uh, what what what amused us was that mm-hmm. throughout the western region, for instance, mm-hmm. we have not provided one one transport Income in their tens of thousands. KMT in their tens of thousands. Banju and the, from the provinces, we send them Gelegele district, not more, the entire province is not more than 13 or 12. Mm-hmm. They came in their 1000s mm-hmm. Provinces. And, uh, uh yes. Mm-hmm. We called on APRC, those who are APRC, believe in APRC to mm-hmm. come out. Mm-hmm so that this will demonstrate to the world, not only to Zambians, mm-hmm. and that makes people understand that the party they call is a dead party, mm-hmm. the biggest party in the country as of now. Mm-hmm. And this was amply demonstrated yesterday. So, in your opinion, Landmark more trigger, Landmark land this 50,000 people rally um, is it because mm-hmm. dañoo the APRC is a dead party and you wanted to prove to the whole world that yes, APRC is the biggest party in the Gambia? It is mm-hmm. that the reason? It has, it has, it has multiple objectives. Mm-hmm. One is to enable us to clear the doubts. A lot of things have been said about the party, mm-hmm. about the illegality of belonging to the party, mm-hmm. about uh, about the conditions of the country and what is happening. Mm-hmm. We want to air out, so many people to know because mm-hmm. we don't have access to the television and the radio. Mm-hmm. So that is one thing. Three, also demonstrates to those doubting Tomasi mm-hmm. that this party is the greatest party, mm-hmm. despite all what are being said. Mm-hmm. 3 mm-hmm. it also enables us to dialogue academically. Like today, we have series of meetings with various delegates as to the conditions in their areas at the same time what, what we will tell them and how to restructure for our planned nationwide tour because we plan we plan to have a nationwide tour of not less than three weeks, maximum four weeks. Where we will go around every nook and corner of this country to clear the air. We also want to ensure that our people are disciplined as usual let them, let them, let them not pay uh, attention to those who may insult them or provoke them. Let them have faith. Let's talk to the people with our policy programs, our, our objectives, and our achievements. And also let them realize the shortfalls on, on, on the current government. <laughs> because people's expectations were very high for the past 10 months, not only the opposition, but even those who were members of, of the coalition are disappointed. And the essence of governance is to provide at least basic services to the, the, citizens. Mm-hmm. Now, we also clear the air on some of the claims they are making, they are, some of the claims they are making as regards, for, for instance, the news, the story that arrived, uh, the Yemenkoto Fatamat road, mm-hmm. and the 50 million dollar conference center. Mm-hmm. We are telling them that yes, these things are happening now in their time, but these things have gone for long. So at least when they are inaugurating it their time, let them are also thank those who came out with the plan, the negotiations, the agreement, but don't you think? Don't you think about Lulu um, when um, APRC came into power? there were a lot of projects that were initiated by Sadauda from Lin Jotaham, but APRC took credit for those things. Don't you think that is what is happening here? No, not, not, not necessarily, no. Conceptualizing a project Mm-hmm. And finalizing a project are, are different. APRC did Lolo no no time the APRC including even GRTS. This was something that was in the making and a lot of other things, but APRC how to finalize. No, GRTS, GRTS had been a talk but nothing had happened before APRC came. Nothing had happened. It had been a talk. Well, it uh, everything coming our way, some of those projects did happen. Sitami um uh, Adam uh, Baro, but the negotiation started the time Yaya uh, Jame. Before Luluitami Tami Yaya Jame, I'm certain projects you have they were initiated by the Jawara government, but completed by Yaya Jame, but credit was never given to the Jawara government. The APRC takes ownership of those things. Did APRC do that? Hello, Fabakari. hello Fabakary waa dafa mel call bi dafa dog ivasar dinañ dugg si waat rek wax call bi dafa dog rek Iba Sarr ñu dellu si not Gamcel actually ma profito rek credit bi actually moo jeex <laughs> credit ba jeex we are calling them using Skype credit dinañ dellu si waat dugal Fabakary Tombong Jatta rek ah, right now ma jënda credit Iba li nga jot a mu wax sa quick analysis whilst maa ngi purchase moo credit dafa dal ah, dégguma ko woon bu baax nak line bi mu doon break to be honest wax dëgg neex yalla jotuma dégg yu bare bare yu mo wax pause fan way ci hmm. gata rek xamna di ko am ñu eh, ñew ci li nga xamne moy sen rally bi nga xamne def nañ ko li yep eh, eh, is getting scary sakatuma la di rule government on ci bay bàyyi xel barki di ba GDC gis nañ len mbolo bu len topa génn si khalifa sala demba APRC khalifa sala barki demba APRC demba sa ka APRC na dinañ ne ñoom ñoo am mbolo ñëpp a tiit nag ñëpp a waaru ñëpp jaaxle ci mbooloo bi ni yaayaa ak i njuuj njaay yiñ koo tuumal yaayaa ak i xeeti bon bonam yiñ koo tuumal yaayaa ak lack of eh, human rights tam yi nga xam ne ñu ko koo toppee ba tey ñeñe ne di seek for justice mbooloo bi war a génn Pa Ousmane ñu war a bàyyi xel ba tey am na sax si ñuy natta pour ñu def référendum pour seek pour jàmme pour mu combattre <laughs> bo maa ngi ko doon dégg référendum pour yaaya jammeh yaa ay nga ree sax waaw ñu ne nañu even for référendum pour seet ndax ñu vote pour seet ndax nangu nañ yaaya mu dellu eh, si ndax bu mu dellu si yaaya jammeh dellu si waat waaw démocratie lañ wax nga ma xam nga démocratie moom sax bu ko Adama Barrow yattalee nii yaaya jammeh moom xam nga li APRC amuñ ko woon ah hmm. lii amuñ ko woon ah hmm. imaginer rek lii num neexee sol seen dafa neex démocratie suñ ko tegee ci yoon ku ci nekka comme lu ma wax la brand balance coverage GRTS waroon nañoo coverage ñu analyse ko special ñi nga xamante ne a political eh, correspondent ñu ñëw toog ñu analyse ko hello mr jada hello hello yes the line got cut off yes sorry about that the line got cut off yeah, yeah, yeah. Yeah, so, yeah, so we were talking about the projects that were started by the Jawara government that APRC came and finished and took credit for. You like the same thing um, with the Barrow government. Is that not what you think they are doing? They Nyomedian start no. the projects and they actually taking over. What's your what do you want no, to say about you see, that? You see, for ongoing projects mm-hmm. or projects that have been conceptualized action upon. Mm-hmm then even if APRC comes to power, they should thank the previous government for that. Mm-hmm. Okay, don't Doru Digala. a program, just for, yeah, just for a program that you anticipate that you want to do, mm-hmm. you can write a lot of things that you intend to do, and at the end you do nothing. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. So what we are saying is, for the ferry, mm-hmm. we negotiated, we arranged, mm-hmm. we went, we did the design, we traveled there, we gave the approval mm-hmm. and we agreed on the terms. Mm-hmm. And then they started constructing it since last year. Mm-hmm. It was it's about one year, six months, really, me. Because mm-hmm. from January of 2016, mm-hmm. so they were so, so, supposed to bring it to either May or June of 2017. Mm-hmm. So they, the time arrived. So what they are saying is, yes, it can be in their time. So they will to sunk us. Mm-hmm. They look at customers' life. Mhm. It has been meditated to for how long? Mhm. Even during colonial time, it has been there. Mhm. So but whatever had happened, they will say they will make it, they will make it, they will make it. They are the ones who negotiated it, got the non-agreement, approved by parliament, and was in parliament, remember? Mm-hmm. And then even the project started. Mm-hmm. So when they come, the person of the project may be during that time. Mm-hmm. But then again, maybe that, they are just lucky to find a project ongoing project that they have been filmed. Mm-hmm. But everyone has plans to construct a road that we have not done. Mm-hmm. And they come in, then that is their project. Mm-hmm. Though we want to do it, we have not done, that is ours. Mm-hmm. So, so, okay, go ahead. Yeah, go ahead. Go ahead. The total million dollar conference that was built by the Chinese. Chinese ah. I have all the documentation. She said, I think like this. Mm-hmm. Before we talk to the world or talk to the people, we have enough evidence to prove physically for people to see. Mm-hmm. Because we don't believe in the politics, maybe politics of misinforming or, or lying to people. Mm-hmm. You know? So the same thing, mm-hmm. that all what has happened since last year, up to now, mm. a, a of the site mm-hmm. and all these things. is not the name of the foundation that also came that. Yes, it's not credit. But let thank us for the negotiations and agreements and all these things. My mm-hmm. problem is, this government has never once said over the radio or to anybody that I know of that APRC has at least done one thing good. Mm-hmm. Okay. I mean, that. that okay. Now you're saying um, over the radio and um, stuff. You did mention that uh, you don't have access to the media. Which media are you talking about here? You talking about GRTS or all media houses? Yeah, yeah. I, I, I'm talking about GRTS because you see, some of these media houses, like uh, even our, even our, our this meeting, mm-hmm. when I asked two days or so before the two three days before the meeting, you send some media, these FM radio stations mm-hmm. to make announcements for us. Mm-hmm. And now their coverage is, their coverage is limited. Mm-hmm. Their coverage is limited. Yeah, those are the people. Nigeria yeah, guys, for the record, did you guys write to GRTS about this rally and where they yeah. to cover it? Yeah, we write to GRTS, we inform them, call them, call them, they give us excuses. Some of their own staff even try to make sure that they come in, they don't come in what did, what did you guys figure out? What did that yes, when South Africa was able to come together and cover it, what did you guys figure out yes? And RFI came here to cover it. Not our own television station. That was built by us. Yeah, but um, who did you contact at JRTS? Who did you contact at JRTS? then I must I must talk to our our our, our press with uh, uh, our poetry, uh, work published. That's fine. But then how, how would you react to folks who would argue that what goes around comes around? Because apparently during the APRC days, the opposition never had access to GRTS. And, and, and, and now that you are in that same situation, what is your reaction or how do you see that? Meaning, in terms of like whatever you guys did is what actually Right. So thank you very much. Maybe the opposition, the coalition side, take that to a democratic. Mm-hmm. They are not, they, they, level of resourcing. Uh-huh. And that they promise that a new Gambia is to be born. Yes. Now, if they come in now, uh, bringing the new Gambia and to be democratic and to be uh, rule of law and all these things to happen, mm-hmm. if they challenge them, they cannot take, they cannot tell now that you have been doing it. Mm-hmm. But now, mm-hmm. they are mm-hmm. not an object. Mm-hmm. But now we have agreed that are supposed to something better than we have done. That is very true. And I said that a minute ago before you even brought you in when we were talking about something else. But my question to you is um, uh, you admit that you guys never give access to the opposition until the 11th hour of elections within five years. Um, do you agree that you guys never give them access to the TV? Yeah, uh, I don't know. I, you know, for me, mm-hmm. it will be difficult. I, I, I have not been seeing them as, as you see others on, on the Gerard, yes. Yeah, yeah, but that, okay, so Gerard yeah, apparently was um, monopolized and uh, taken over by the APRC and giving directives not to anything that has to do with the, polit- um, the opposition or with the opposition. That's, that's, where, that's where I may differ. I don't know. I, I am not aware. I don't know. I'm not aware. Um, I am not part of the Minority board at the time, but I am not sure whether they have been giving uh, directive to to air. Uh, I, yeah, I, I think you are saying things and they're right. you telling me? Are you telling me that it does not mean that GRK did not come because they are giving directives to cover up? No, that's not what I am saying. I, can, I cannot say that. I cannot say that. You know, even now, mm-hmm. even not covering our, our meeting, mm-hmm. I cannot say that they were giving directives. Mm-hmm. But we will not cover us. No, what I am trying to answer to you is during APRC's time, the agreement as APRC has and the government had, um, uh, refused to give access to the uh, um, uh, opposition to have access to state media. This is what, I am saying. I told you that uh, the access and non-access. Mm -hmm. I was not part of that. I, I don't know I hardly see them on the GRTS. Okay. okay. You understand me? Mm-hmm. Now, right now we are directing the GRTS not to cover mm-hmm. or whatever this is. I cannot say that. Okay. Generally, I, I cannot say that they not cover our rally okay. because they are giving directives. If I okay. say that, I will mislead people. I don't know. Mm-hmm. Okay. What I do know only is they do not come to cover our rally. Okay you guys, you know, up to today to see why they didn't come over, you didn't bother to do any of that? Yeah, you know, you know today, you know, today is a Sunday. Mm-hmm. Today is a Sunday. Mm-hmm. So, hopefully, there will be a lot of other things that, that happened. Yeah, but the one last week, I watched your interview with Ken Fatu, and that was actually aired on Yes. So, um, do you think. Yeah, no, no, Ken, yeah, no, Ken Fatu, mm-hmm. uh, was an issue that they got again, I thought, I thought that is under our cost. Mm-hmm. now that's what I thought. Mm-hmm. Now, if you look at, if you look at, if you look at, if you look at the question and uh, the reaction, mm-hmm. you, you, you know that I mean, they are not independent journalists. Uh, I'm not talking about Fatu himself, mm-hmm. but the guy, uh, named, uh, yeah, Nyanga, uh-huh. Uh, they, they, have, they have, they have, they, they have uh, something against uh, Dami and against Lazarus to a level mm-hmm. that they even show it in their districts, and as well as the most professionals. Yeah, but um, uh, I, I, Scan Fado uh, is aired on DRTS, but is independently produced by Fado and Young and them um, by Cora Group. So it's not DRTS stuff, but at least DRTS has given that opportunity for it to be aired on DRTS. Oh, well, I don't agree. I don't, I don't agree with that. Mm-hmm. And uh, and uh, for me, mm-hmm. any any any media house, mm-hmm. media or any other media house, uh-huh. granting us granting us uh, express how we feel, mm-hmm. whatever the questioning is, mm-hmm. it is a title. And mm-hmm. what I also expect is mm-hmm. if we know our KPIs about our limitations, mm-hmm. our weaknesses, Mm-hmm. They should be able to go on that because they experience it, they saw it, and they told us. Mm-hmm. So we expect that those things will not occur again. Mm-hmm. And even if APRC comes back, as I told you earlier, mm-hmm. we, we, we, we, we have to reflect on our, uh, on, uh, we have to have an in-house cleansing to mm-hmm. see Mm-hmm. what were our uh, weaknesses and all these things that mm-hmm. we have done. Mm-hmm. And we have pledged that an, uh, a return of the APRC will never bring, those things will never happen. happen. Okay. So yeah, that, that's what we mm-hmm. are. Mm-hmm. We are not saying that we are angels mm-hmm. and we are done everything bad. Mm-hmm. This is politics, mm-hmm. and more so African politics. Mm-hmm. But we must also graduate. We must also graduate. All political parties must graduate. The kind of things now is, is in, uh, eh, of what African countries do, mm-hmm. the replacement of leaders, etc. Mm-hmm. Now we should draw a line. My belief, even before, even when I was in government, was mm-hmm let's draw a line. Mm-hmm. The, the, difficulty in African leaders leaving office mm-hmm. is leaving office you lead to humiliation, incarceration, etc., mm-hmm. etc. Mm-hmm. So we will draw a line. If, if for instance, the coalition government goes out, another mm-hmm. government call comes in, mm-hmm. and then they go for them also the same way, the same crap crap. Mm-hmm. One government goes out, another government comes in. Mm-hmm. So I agree, I agree with you on that, Mr. Um, Jatta, but um, don't you know or did you know all these things while you guys were in power? You know, you know, you know, you, you take government to be a one-man thing. You know, government is a composition of people. Mm-hmm. Like even you, if you were there, you could not have done anything. You can only express an opinion and see how far you can go with it. Okay. So what well, I'm saying, there are a lot of things, a lot of things improve mm-hmm. and or stop because of some other people's interventions and contributions. Okay, that's fair enough. Yeah. Now, let me ask you this question, Mr. Before I forget, it is very important. We have um, messages and pictures and audio circulating on WhatsApp of um, some APRC supporters who were supposedly coming to the rally and they were um, brutally beaten up in Bosombala. Is that something you can confirm for us? Did uh, Bosombala actually new and recent images and did they actually happen? And if they are, who are those people? Yeah, it's the identification that is the problem. You know what happened? As I told you, hundreds and hundreds of vehicles gathered in Gitama from Pony, from the Congo South areas, and they had to move towards the venue. Mm-hmm. On their way coming, mm-hmm. usually when the when the coalition are going out, APR can be there in our house. We don't even go to see them. Mm-hmm. Hence, some of these people, as they were passing, these people came, some with the photograph of Barrow knocking on their vehicle. Mm-hmm. But remember, we, we cautioned our people mm-hmm. that no end of provocation could make you engage in these skirmishes. Mm-hmm. Forget them, ignore them. Mm-hmm. Now they started throwing at, turning at them until they wounded a lady very seriously, and some other people were bruised. Mm-hmm. You know, they were they were insulting them. They were going. They were insulting people coming out. Imagine that cloud. If they are able to come down and like, come what they did at Canada and Contender, mm-hmm. when they came from the independent rally, they were going to UDP. They found these people they are telling. They, they, they, they insulted them. Those people also, they, they came down and they are also proud. Mm-hmm. And that cloud when the police came, they only took the APRT. Not, not one person of UDP was taken away. Mm-hmm. It is a tracker between two parties. Mm-hmm. Yes, we cannot ascertain, but all of them go to the police station and then you ascertain what has happened. Mm-hmm. Mm-hmm. But you will, you will let the others go, and only one group, even those who are not at the scene, mm-hmm. they are crowded in town to unpick and taken away. Mm-hmm. I mean, is that, is that, is that the new Gambia? Mm-hmm. They claim that that's what we were doing. Mm-hmm. Now, are they claiming what we are doing? Or they have told Gambians that they are going to defeat what they claim to be bad done by the APRC that they are going to do again? Mm-hmm. Or did they say that, that they want to put a stop to it and bring in the rule of law, democracy, and good governance? This is the question we are asking. Mm-hmm. Because even if you ask them, they tell you you are doing it. Mm-hmm. You are doing it. I mean, that's not the solution to this problem. Mm-hmm. Just like if we come back to power, mm-hmm. we do something, and then when they ask, or oh, we say, but you, yeah, the last government, you did it. So you pass those stages. But mm-hmm. at that stages, we cannot we cannot allow those things to be haunting us continuously. mm Gambians want an improvement in whatever we are doing. Even mm-hmm. if we are doing good, they want an improvement on it. So mm-hmm. they, we cannot politicians cannot be counting on you have done this, you have done this, you have done this, you have done this. I mean, that is that is that is unethical. Mm-hmm. For me, mm-hmm. it's morally it's morally incorrect. Mm-hmm we politicians must begin to know that power resides in the people, mm-hmm. and we are there, we are voted because those people believe that we can provide the relevant services and protection that they need. Mm-hmm. So you believe that the government is coming after APRC? Strongly, strongly. You know, I said it. I said it. You know, uh, the honest thing is, you know, uh, when I went on tour during the parliamentary elections, mm-hmm. I was I was confronted by questions like the player that to belong to the APRC is illegal, is bad. Who said that? Who said that to you? People in Chame. But not government officials, Not, not government officials, right? But not government officials It's people in Sami who said this to you, ordinary people, right? Yeah, they told, yeah, that's what they, that's the information disseminated. Okay. Whatever it is, whoever it's coming up, it's, it's not true and it's incorrect. That the APRC party is people, they believe, Yeah, and that, that, if you belong to the APRC as a band party, it's illegal. Oh, okay. Okay. And, that, and that's true. If you if APRC is banned and you claim to be a member, no, no, no, no, no, no. committing a crime. Mm-hmm. You are committing a crime. So those are, those are, that's why I told you that we have to go around the country mm-hmm. to tell people APR is, is there. Mm-hmm. And we are a legal party, and it's their right to belong to any political party of their choice, mm-hmm. depending on who they believe, which political party they believe, will serve, will serve, will, will serve their needs. Mm-hmm. Yeah, that, that's what we are. Okay. And that's what I wanted. Mm-hmm. And if, if by whatever means, only Allah knows, and the people of Gambia, mm-hmm. we as APRC, mm-hmm. after 22 years in government, mm-hmm. we have learned a lot, mm-hmm. we have experienced a lot, mm-hmm. and that we have resolved that anytime we come back to power, Zambia will be a model in West Africa and Africa. So what is your reaction to people that are claiming that, okay, Yahya Jammeh is still behind the APRC and he's the one funding? First and foremost, are you in touch with Yahya Jammeh? I, don't know why people want to ask this type of question. Because are you in touch with Yahya Jammeh first? Are you in touch with Yahya Jammeh? No, no, no, let me give you a preamble because people have said a lot of things. Mm-hmm. Yahya Jammeh is a Gambian and, and uh, he, he he has he has served as number one citizen for 22 years. Mm-hmm. I mean, he, he's gone out. Mm-hmm. Can anybody can anybody resign somebody's citizenship? No. There is no law in the world that can happen. Mm-hmm. So Yahya is a Gambian, mm-hmm. and as a Gambian, he has the right to belong to any political party. Uh-huh. Also, he is he he is one of the founding members of this party mm-hmm. and the leader of this party since his inception. Mm-hmm. So when people are beginning to ask, they want to say that the Ajame should not talk to anybody, the Ajame should not come to the Gambia. No, no, no, no. My reaction is triggered by the fact that we a lot have not been heard from or about the Jame since he went to Equatorial Guinea. So I'm asking if you are in touch with him personally. I, in fact, in fact, I like that very much that he kept his silent Okay. About this business. <laughs> so I will in touch with Yaya Jame still. My question, are you in touch with the Jame? That's why you mean me? Yes, you, me? you and the party, yes. Since you are the interim leader of the party, right? So you are, the interim leader of the PP, of the uh, APRC, right? Yes. Okay, are you in touch with your agenda? Why, why, why, why, why that personal question? I, I, I am just asking because we want to know. Like I said, not much has been heard from Yaya Jame or about Yaya Jame. I'm just asking to know if you are in touch with Yaya Jame. Yeah, you, you see the problem. He, I, I can be in touch with Yaya Jame. Are you in touch with him though? Are you in touch with him though? if, if I am in touch, Mm-hmm. If I am, for if I am in touch with my agenda, mm-hmm. it, may, it, it, it, it, may not be political. It may be a private issue that me and him may discuss. Okay. And should I be able to tell people I, we are on that? What I mm-hmm. do know, what I do know that I can assure you about mm-hmm. is no no good is coming to us. No good. Mm-hmm. If, if, if we had had money in this country, if we had had money, Wow, wow, wow, wow, wow. Good lady. Yeah, but um, actually, you know, I'm talking, last thing I was saying, last thing I was told me if you are interpreting or not. You said if you are interpreting, but you did not confirm whether you are interpreting or not. Are you interpreting, I think you want, you want to know something else. Yeah, no, I answered your question. Okay. Um, so, how the Megastatic Qualifier is the APRC and its activities this minute, right? uh, what I'm mm-hmm. telling you is, mm-hmm. we receive no time mm-hmm. from President Jammeh. Mm-hmm. We do we do have some token contributions from our well-wishers in the diaspora. Okay. And Gambians here, mm-hmm. from the ordinary Gambian people who love the party, mm-hmm. they sacrifice and put in just to be able to organize what we organize. If we if we had had money we will not charge people to find their own transport, my, my brother. Mm-hmm. will not do that. Mm-hmm. They provide they, all these things. Mm-hmm. They don't accommodate people in, in the hotel. Mm-hmm. People are accommodated in various residences uh, by families and all these things. Mm-hmm. Imagine that. Mm-hmm. I mean, even we have money, we'll do that. Okay, so what is your reaction to folks who say, okay, well, APRC, um, uh, this is what they missed. Um, the women um, getting together partying, that APRC was a party for partiers, people that just want to party and just have fun and the like, don't have any agenda. What is APRC's new agenda? What are you going to do differently than you have done um, uh, uh, uh, uh in the past years? In, questions like that, mm -hmm. I would not bug myself to answer those questions. Why not? for many reasons. Mm -hmm. Why? Even you say APRC from uh, dancing and dating and doing all these things that what they come together for and, and all these things. Mm-hmm. They say people will never say mm-hmm. that APRC is the, the, the, the, the, the, only government, mm-hmm. this government, mm-hmm. that, that, that, that, that, that, that builds hospitals in this Gambia. Mm-hmm. No other government, besides the colonialists, mm-hmm. television station, University of the Gambia, rural electrification, etc., etc. They don't talk about that. Mm-hmm. And uh, is, it, is, it, is, it, is it out of out of out of, out of ordinary mm-hmm. for us to get together and uh, and uh, and relax and uh, enjoy ourselves? The same people who are who are saying that they do worse relaxations than we do. Mm-hmm. So why why do people believe that we should not come together as a party and relax and enjoy ourselves? Okay. But might agree that without working, without providing salary, it becomes a problem. Mm-hmm. Or you want us only to be working, mm-hmm. no relaxation, no enjoyment. Mm-hmm. So what do you know different? What do you mm-hmm. So, those questions, I don't bog myself to answer those questions. Okay. Those are the people you can never, you can never convince, convince on earth. Okay. Even if you dance in the water, they will tell you you are killing off the dust. Okay. So I left my time to answer those people's doubts and, and try to clear them. Mm-hmm. Now, what would you do someday if you are to come back um, uh, uh, uh, uh to power? If APRC was to come back to power, what would they do differently? Like what? We will do, you know, but I, I tell you the reasons. Mm-hmm. I you. In, in fact, we have even started. Mm-hmm. Even restructuring the party. Mm-hmm. That decision making should be all, all inclusive. Mm-hmm. For instance, mm-hmm. we have now created uh, a national coordinating committee mm-hmm. that will comprise of people from all the constituencies in Zambia. Mm-hmm. That was not happening. Mm-hmm. That, that, where we are. We are looking internally how we restore the party. Mm-hmm. the party itself to be democratic. Uh, then we now, as I said, we have tried to diagnose ourselves on the operations of government and governance itself in the Gambia, mm-hmm. rule of law, democracy, and all other things. Uh, now, now look at the weaknesses and limitations. Mm-hmm. So what we are doing now is because the big major program of the party uh, is to blame. Mm-hmm. It is just sidelining the policy program and doing things differently. Mm-hmm. So that's what we, we want to ensure that there is self discipline mm-hmm. and the people must be willing to provide services. They should see themselves as servants of the people, not as God hmm and that nobody will be above the law. If you have found one thing, you you you you take the price. Mm-hmm. So taking satisfaction and delivery of services is our, uh, is what we aspire to be. Mm-hmm. So as I said, mm-hmm. Basically, we are going to look at every bit of the party mm-hmm. that has been in government for those number of years mm-hmm. and see where the limitations are, and we will put in place the relevant mechanisms to correct Mm-hmm. and avoid it. If, APRC PRC was to win the next election, will you grant former President Yahya Jammeh amnesty? See, what I tell you, what I tell you is, I have, I have seen no reason now mm-hmm. why Yahya Jammeh should not be in Zambia by today. Okay. One. Mm-hmm. Two, based on the agreement mm-hmm. made by President Jammeh, ECOWAS, the AU, and the United Nations, you mm-hmm. go to the website, you see there mm-hmm. There were agreements made before President Jammeh left. So why is he not back then? No. no, those agreements, now, those agreements, United Nations is not the government of the Gambia. Mm-hmm. So it's the government of the Gambia that is, that is to ensure that those things are implemented. Because during those times, they were negotiating on behalf of the government. Now, after signing all those things, if the government thinks otherwise, how, how, what do you expect? How, would the president force himself to come over? So, in short, if APRC was to take over the Gambia again, Yahya Jammeh will be back and granted amnesty. I can, I uh, not even APRC taking over. Yahya Jammeh should be in the Gambia as we are speaking. Okay. All right. Yeah, fair, fair enough. And uh, what is your take on people who are accusing APRC of being a tribalist body or that are actually instigating tribalism? you have been accused of instigating tribalism in the Gambia. Yeah, yeah, yeah. You know, you know. To be honest with you, I think you really answered that question because you you have you you listen to these WhatsApp messages and all on the way I listen. You see, in fact, those people or the coalition people, what they were saying, the insults they were doing, you, you must have heard them. Mm-hmm. APRC is not tribalist. Mm-hmm. APRC is not that. I said this. People people said that Kagame was tribalist. Tribalism is you favor your ethnic group and no other uh, ethnic group. Mm-hmm. Yeah, I mean, eh, we talked about the, the, the, the that he thinks about the Mandinka, mm-hmm. about the Islam tribe, the Jolas, mm-hmm. about all these things. But if you listen to these people now, they only talk about the goal of themselves and not the goal of others. Mm-hmm. It's now that things are being, these are, things are changing because mm-hmm. some of them who had no experience, who think Gambians are still sleeping as in the, uh, as in the dark days, mm-hmm. are beginning to realize that they are making errors mm-hmm. to make those comments. Mm-hmm. I, I am Mandinka myself. Mm-hmm. You, know, you know, I'm a Mandinka. Yes, of course. I'm a proud Mandinka man. Okay. I, tribe, tribe does not play anything in my life. Mm-hmm. I am a Gambian mm-hmm. and a mm-hmm. Muslim. Mm-hmm. So Everybody, I believe, could provide could, could provide the services for the Gambian people. Mm-hmm. Whether you are Manjago, Kula, Jola, or whatever, mm-hmm. I will I will give you my support. Um, your, last your last words to our listeners and the Gambians at large. Your life on the Gambian yeah, Talents platform I, once I, again. I want to I want to uh, uh, uh I want to acknowledge mm-hmm. and I appreciate some of the, those people in the diaspora. Mm-hmm who had gone against the APRC because of what they believe dictated by their conscience, mm-hmm. and are bold enough mm-hmm. to look at the current government and express similar feelings against them. Mm-hmm. They won my admiration. Okay. Now, those those who blindly mm-hmm. would follow political parties just mm-hmm. because of a change, because something has happened, mm-hmm. and you don't want to you don't want to look at the uh, the government in, in, power and, uh, at least mm-hmm. contribute to ensuring its success. Mm-hmm. Because the best way to help Sabakari mm-hmm. is to be able to advise me on my limitations so mm-hmm. I can be able to improve on them. Mm-hmm. So uh, that's much I appreciate. Mm-hmm. And their, their participation and talk to those who are dictated by their conscience, whether it's APRC or coalition or another government coming in, -hmm. I will encourage them to continue. Mm -hmm. I will definitely encourage them to continue. Mm-hmm. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Fabakari Tombongjata. This was live on the Gambian Talents um, Radio, headquartered in the United States. We appreciate um, you granting us this interview. I'm grateful, and I thank you also for granting me this interview. Thank you very much. ah Iba Sarr nga kooku mooy njiiti APRC parti bu <laughs> njiit bu es bi Fabakary Tombong ah, nga kàddu yi nga xam ne wax na ko ah, foofu laaj yi nga xam ne laaj naa ko ah, Iba foog nga analyse li na fi tey. ok da nga baaba xabaaba. Aliou kii rek nga ne soxla wax. <laughs> du ko dinga more in-depth interview with him because am na yu bari yoo xam ne war nañ ko koo mun a laaj askan bi bëgg nañ ko koo laaj ba pare tam the video is getting long to be honest and then very soon. foofu am ak moom tàmbambalu rek doxantu ba tese ak moom su ko defee mu waxtaan ak Um, any other question that we have ñu laaj ko ko ndax loolu am na solo so kon messages yooyu ñuy gis on WhatsApp mu ngi confirm ne lu am la Eva waaye bëggut a wax today ñooñu duñ tënk ba next week ñu dugg ci loolu ñu commencé opening show bi this APRC rabbi bi ak li nga xam ne Fabakary wax na ko te de ñu play audio bi sax ñu play ko a di jégalu rek some of the listeners that are saying ne audio bi wasn't very clear with him maa ngi ko amoon ah, record and that will be very clear maa ngi ko amoon record and that is very clear so we can play it next week su ko defee nit yi ngeen ko dégg incha allah waa daf doon mass pa Ousmane ba pare xabaabal nañ waxtu bi jeex na ba tax na loolu tam bokk na si système change bi yëpp ñëpp a si war a bokk ñëpp Gambien ni léegi système système change Halifa Sallah xamul lu di <laughs> système change loolu rek ñu ñëw ah, ah, na trop ba pare waa Banjul tam mu ngi guddi te bu yàggee ñoo ñoo folo du neexati du amati cas waaye mm. xam ne Halifa wax na ko ba mm. tribal ah, treasury bu néem na ko nañu ko bàyyi xel Pa Ousman mm-hmm. képp koo xamante ni maanaam jël nañ la ñu into office buñ set tribal treasury buñ set eh, nepotism buñ set mm-hmm. favoritism nañ seet that the person is capable of doing that job fii gis nañ ko fii Pa Ousman ba pare man suma problème mooy ñu si diaspora bi ñooñu laa amal problème you know ñu si diaspora bi yéen a ngay gis fii ñu ngay gis point blank lu fee happen you know, I was somewhere yesterday having something. You know, about Usman, the conduct of people, ninyangi abide by the, the, the, terms and the condition of that because suñ soxla la ba tey Gambia ni gën Gambia dañoo misbehave waaye bu ñu ñëwee fii ñëppay rek la even ñu nekk online fii di bullis suñ demee seen liggéeykaay they behave dana tax ah. mënuñoo behave mu dem ci kaw mu dem ci kanam Paa Ousmane pour ñu rek pour ñu rees flag bi Gambia is less than two million ñun we are still struggling yaa ngi next beneen dina génnaat temagegiranya mm-hmm. government bitamit coow bi bari na trop si mm-hmm. seen kaw ku génn rek ñu ŋàñña la ndax ñoom la ndax mm-hmm. seeni ay nit la tontu wante bi confrontation bi is too much too too too much the other time it was tombong uh, Fabakary Tombong Jatta Pa Ousmane Wow, boobu dañ ko detain arrest ko questioning or whatever it was ñu jógee ci loolu DGC coow li ne kur ci Facebook bi tam boobu this week around is Halifa Saleh's uh, uh system change issue. Mm-hmm. Mm-hmm. week in week out dafa am loo xam ne people bi ñun amuñ time and time is running kañ lañ fi wax January ba ñu ngi ñëw ni is is coming to an end eh, next week mm-hmm. eh, Ousmane ñu ngi nekk ci November so bi next week bu moo fall November la moo nekka nii lañ fay nekk di yeli yeli yeli yeli yeli yeli be waxtu bi rombañu amuñ time nañ roll out the ideas nañ roll out the plan nañ roll out the agendas ñu ñu roll ko out ba pare tam lu mm-hmm. gën a Halifa Sallah wa ànd naa si bi yoon wax dëgg ne yàlla bu APRC tooñee woon woon ñoom ñoo wàcce yoon whoever mm-hmm. did this whoever did this fail na his office or her office pour mu war mm-hmm. ñëw from mu whether is he or her mu war a génn press release bi it should only be released with the person in charge waaw dafa tey na xeel bu baax a baax loo xamante ne si suñ guur bi la Afrique rek nga dee gise yi te du Afrique rek système change bi dafa bari bu yàggul lañ gis Uganda seen national assembly ñuy jamante ay toogu so demee Sénégal tam there is a lot yi nga xamante ne système bi fail eh, nit ñi fail nañ ko système wala fail nañ ko système mm. change yu bari ñoo ko nekk Afrique ñun ba kañ la ñoo dem Pa Ousmane mm-hmm. <laughs> waaye nag li ma wax ku nekk fi nga dëkka foofu nga mm. moom nga mun a wax ñun mënuñoo waxal Uganda mënuñoo wax Sénégal Gambie la ñoo wax ñun mm-hmm. population of less than two million Pa Ousmane tegu ci yoon benn tey mënuñoo mm. tegu ci yoon am na some credits yoo xam ne nag dinañ ko jóg government wax dégg na yàlla because APRC lu xapun ni eh, with their time dafa am te bi tey eh, audio bi was bad Why dégg nga dégg naa muy wax ne you did this you did this ba pare ñu page lañ wax ñu Gambie ana naa fa tombok ñu Gambie lañ wax let us open a new page ñu eradicate the past nañ bàyyi justice mu def liggéeyam waaw mm-hmm. su fekkee ne dafa ni comme li ma wax li ma waxoon Ibrahim eh, eh, DG GRTS la free try, eh, free coverage be given to every political party mm-hmm. bu mu am xaajo ak seen na ngeen ibi ñu pay ñu Gambie ñu ideas ñu system mm-hmm. waaw ñu move on ñu bàyyi des tribal line yi nga xam ne mu ñoo kus te suñ moytu billahi wallahi talahi jiñ naa ko si alxuraanu karim ndax dina ma fekk may dunda ndax dinaa dee Gambie su tàkkee tribal woo moo ko taal <laughs> si anda ne ñok sago beñ exi fi iva video bi nga wone si fekke fa bakari to mon jata lu wan lolu degal holol lu rek ko tedda nonu yo wonew lako because it's very disturbing waaw mo tax wonew it's very facebook si dafa mun nañu delete fi interaction bi waaw pa ousmane nañ moytu ay xeet yi nañ moytu ay ay religious lifin yi ciow yi ni fight yi ba pare ñu moytu nañ moytu fitna even even bi nañ tinkarek ba next week ñu duggaat ci fooguloo ko waaye yi yëpp tinkala Pa Ousmane yi yëpp yi yëpp waaw Pa Ousmane yi yëpp tinkala na Gambia di gën a bàyyi seen xel ñu moytu coow bi uh, we mm-hmm. have you know comme am nañ a lot to do kurang baa ngi mm-hmm. ni te yi na ci li nga xam ne sax it na moo tax APRC gain all these people because suñ demee seen meeting si luñ leen a wax kurang bi amul an nit ñi teg nañ ci seen bul jaxaran te Gambie yéen mooy comme li ñoo wax rek loo njëkk a dégg moom ngay góom rek nga move on dañ mun a toppee So na nit ñi bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax xalifa wax na lu mu wax mu wax na ko ku ko cee bugga nga bugga ko sum nekke ku ko see bañ nga bañ ko sum nekke waaye xoli xalifa xalifa will remain in the eh, eh, eh, parliament to be to to serve as a check to the government mm-hmm. yes Africa na mm-hmm. dañ bugga free freedom freedom freedom soo anyway, in all angles government government institutions the de Pa Ousmane amul system change What to la neex la DG bi di dem liggéey waxtu bu ko neex la moo wàcca post office bi nit ñaa roam around in the streets I'm in breaks attitude care free attitude si soo ñëwee Pa Ousmane system change next week ñu commencé njëkk next week it's very interesting um, but we we spare it till next week I'm just appealing to you uh, comme ni ko waxee we've done three hours and thirty minutes. lopitaan bi amul garab thirty minutes xool comédien na commencé next week ñu dugg ci yoon <laughs> ñaan naa la. comme lu ñu wax rek ñun ñëpp ñu bàyyi xel rek. <laughs> Gambie ñu. moom kenn moomu ko te kenn duñu ko liggéey kenn du jógee dëkkaam bi ñëw diñu ko ah, ah, ah. Gambie stable na ñëpp a ngee daw tey Gambie stable ñëpp a daw di dugg si pour invest foog boobu tam dibéet boobu gars yi dibéetoon nañ ko on GRTS ñëpp a ngee daw investors si from all over world of seen different countries ñu ngee daw si di ñëw di jël li nga xam ne doomi réew yi akkimee wuñ ko wala jëluñ ko kon nag Gambie ñoo ko moom su su su su baaxee suñ Gambie te Gambie dafa ndaw te ñun tam ñu nekk si diaspora bi su fekkee ne xam nañ ne mun nañoo dem liggéey nañ leen mm. wàcce ñu dem liggéey ñu bañ xëccoo Pa Ousmane Gambien bi bëggoon na xëccoo trop comme nga ne ñu gàttal ñu gàttal ko lu dul si nag bi yëpp si ting bi bu ñu ko si defee ñun suñu ci xanda xat na xat boo xam ne ak coowil Gambien yi du sotti kon nag ñu indu jàmm ah, ñu ñu ñu indu jàmm ak salaam ñu faraan jàmm ci ñi nga xam ne guddi na comme ko rek du man ah, kenn moo gën bokkuma ci moo gën jamono jii uh, waktu waxtu bi jàmp nañu we've been on air for over three hours and it's very important ñu jema jengu lol loolu uh, mu ngeen in different parts of the world ñu um, tënka next week inshallah allah suñ ñëwee ñu starté this APRC dañu coow dañu tojangi dina génn ci waat that's Gambia for us that's Gambians for us that's what we are that's who we are that's what we represent jamono Inapotoka Kiongozi wa Haleo Labour welcomed Madam Rek um, Hadim Lobu on APRC is here to stay forever, born the hatred and jealousy. ñuy you bu baax a baax baka baax ci audio Bubu no mu ne di voice is not very clear ni ma leen ko waxee next week nañ leen clear um, one of the most peaceful party in the country is APRC Sadikola Ñang mu ne what system change stop confusing us why um, mu ne let more action um, than talk mu ne Gambia is the best country on earth but our people don't know what God bless us with uh, those are just some of the comments you have made. dugg si nañ Iba gannaaw bi nga xam ne Fabakary Tombong Jatta of the APRC dugg si na nag ñu um, laaj ko mu leeral yu uh, si affaire APRC ak rale bi nga xam ne dinañ ko démba lan moo tax ñu indi rale bi ak yan successes dañ am lan la ñoo def différent digganteem ak Yaya Jammeh lan la xalaat ak leen gis ci nguur gu ees gi ak ndax waa APRC dañ leen attaque dóor leen am dóoruñ leen yu bari jot na ko wax foofu noonu kon dégg nañ kàddu yi nga xam ne moom la wax dégg nañ li nga xam ne moom la Ami Boyen tamit wax muy press secretary office of the president ah, Khalifa Sallah tamit ci press conference am bi démba dégg nañ li nga xam ne wax na ko foofu noonu ku dem ba am three hour um uh, discussion on a press conference ñu bari lañ ko war a laaj tënk na ko foofu noonu moo tax demuñ that because we have him on record saying these things ah, moo tax rek am ñu indi leen loolu kon lu tax Gambia du dem show la this week lan moo taxoon Gambia du dem coowi Halifa Sallah ak Gambia government am back and forward ak APRC rally bi nga xam ne def nañ ko démba mu jëlee ñu bari ko ci xam ne fooguñ woon loolu ne APRC dee na ñu ne ñootu ñoo génn duñ am lii duñ am lele kon lan moo tax Gambian Talents jóg loolu tax ñu ne lu tax Gambia du dem Iva Sarr ak Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi leen ñaax if this your first time listening to us nawaxaan ahlan was ahlan di la wax marhaban di la dalal ci kër gi di la wax ne boo fàttee like suñ Facebook page bi Gambian Talents Promotion if you are watching us on YouTube subscribe to our channel dina wane ni yow waaye dinañu yokka ñun ba pare tamit dina la yokka yow sax ndax amaana di nga mun di gis notification about us and what we do on a regular basis kon ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm bu baax ci seen déglu bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koo def ak li nga xam ne yéen a ngi koo topp saa su nekk di leen ñaax ngeen jàppale rajo bi jàppale plateforme bi comme ni ngeen ko gisee interview na Fabakary Tombong Jatta Dembe ci digg bi interview bi dog because of credit bi nga xam ne moom la ñoo use Skype credit la use to make this calls moom lañ doon waxee Ami Bojang ak kii diggante ñoom ñaar rek about fifty dollars Skype credit lañ fi utilize, which is a lot of money. Thank you to all di nga xamne ñu ngi support Gambian Talents ak platform bi am ñu lay leen bu baax a baax ci baax bi nga xamne ko if you have not been helping ñu leen a ñaan rek ngeen jàppale commencer di jàppale no amount is too small So ngeen ñu ko wóolee Gambia it will do a great deal of good wala ngeen am def ko ci suñ paypal bi Gambian Talents at gmail.com dot com paypal account boobu until we come your way next week ñu ngi leen ay di leen gërëm leen santa ñu ànd ak waa Géey rek on the 27 of December ci seen xawaare gi

waaye daal waa benn yoon ak ak ci yàqal leen ko benn yoon ndax bu ko lu baax xam lu baax te di ko xalaat di ko def ci yoon loolu gaa yi yéen sama gaa yi waa benn yoon ak ak ci ñoo leen di woo ci exclusive woonal barbecue samedi ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru décembre dama ne da ngeen a bëgg a lekk yu neex yu saf saf yoo sell te wóor fekk si leen ñu ndax fu fa yaa nga fa ebe barbecue and afra snacks lekk yi daal safoo sell wóor na tey nag day ànd ak invité bu saw sàpp day lekk di safee wala invité bi di safee bu di saf sàpp laa ko tuddee nag gaañ yi bés bi ñaar fukki fan ak juroom ci weeru décembre waaye nag di leen fàttali gëj ñooro afa ak picc bi bu nga jàkkaarloo ak Koutié high school bi képp ku ci bëgg am lu leer bu leen sa téléphone jokkoo ñoom